asubillahi min alseytaan irajim bisimillahi rahmaani rahim barke Seexna si Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa mbokki auditeur auditrice bu rajo Baol Média asalaamualeykum mbokki àddina asalaamualeykum mbokki Sénégal asalaamualeykum mbokki région Diourbel département Mbacké commune de Touba asalaamualeykum ahlu transport ku ci yëngu ak ca ginnaaw ak a mujj ak commencé ca bopp bi yëpp ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar góor jigéen mag ak ndaw ginnaaw bi nu sante yàlla julli ci sang-sang Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi di gërëmaat Cheikh naa si Ahmad Bamba Xaadim Rasul di ñaanalaat sunu xalifa Sëriñ Muntaxa Mbàkke mu yàgg fi te wér Mbàkke ba mébét yeeg naa li mu bëgg dafas ko yéene ci diin ak lislaam ak yoon maam borom Tuubaa Xaadimu Rasul gi yàlla guddalu fanam taw féexal ko mu liggéey ko nam ko soobee nam ko bëggee ànd ko ak njabootu maam borom Tuubaa Xaadimu Rasuul gi muy doom yi waajur yi sët yi ànd ko ñun ñëpp. noonu ko koy ñaanale sunu mbokk Baay di ko jiital ci xalifa bi sëriñ Moodu Amdi ko ñaanal yàlla sa borom guddalu fanam te wérali ko fi faal ba yi seex naa si Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul joxe mu def ko nam ko soobee ànd ko ak maam Seex Ibrahima Faal lamb gi. muy doom yi waajur yi sëriñ ak taalib ñun yëpp noonu leen koy ñaanale bépp kilifa ak diine ku nekk ci réew mi rek yàlla na ko yàlla defal guddal sa fante wéru sa cër ak donge ak taalibe ak ñu donge yi ak taalibe yàlla def ci réew mi jàmm ak bitim réew seen émission jotaayu chauffeur fii ci rajo bu mag bi ci xàll bu mag bi jëm tuuba ak Mbakke ci tabla caabi jàkkaarloog marché Maam Rama ki leen di animé bi di seen rakk seen doom seen xarit di Lay président regroupement chauffeur taxi banque islamique Ariba Edika mooy nuyu mbokk taalibe yi mbokki auditeur auditrice yëpp di ñaanal góor googu ñu tudd di suñu kilifa sa borom yëkkati ko yàlla fëgg boppam ba mu gën a oyof am doxalaat activités yi na ko bëggee ànd ko njabootu yoon wi yëpp muy goog boppam ak goog transport gi yëpp nag ak ku ko ko yéene di nuyu permis Caragris di njëkke ci président régional di président Serigne Sall sunu xarit bëgg ñebe ñoo ngi koy nuyu di ko ziar sunu kilifa mooy président regroupement régional bu Diourbel ñoo ngi koy nuyu di ko ziar di ñëw di wàcc départemental Mamour Jëmb Diop président regroupement garage Dakar bu Mbàkke ñoo ngi koy nuyu di ko ziar di nuyu ay collaborateurs am yëpp équipe bi mu àndaloon yëpp ku ci mel ni Serigne Fallou Galas Diallo Serigne euh, Samba Sall ak euh, gàpp sama xarit di ñëw Touba ak Mbacké di ñëw Touba di nuyu sunu président président de tous les présidents des regroupements des chauffeurs du Sénégal sunu ba idi ni mu ko waxee yal na ko yàlla yëkkati fëgg boppam ak mboolem yi tawat di ko ñaanal jàmm ak tawféex di ñaanalaat. équipe bi topp ci moom ku ci mel ni le président Baye Ndoye ak euh, président Baye Ndoye ak sëñ Cheikh mbooj deuxième vice président chargé de communication di nuyuwaat euh, waa kuréel bi yëpp kulim juum di ñëw di commission transport commune bu Touba ku ci mel ni sunu papa Khadim Gueye ak euh, équipe bi àndal Serigne Pape Seck code de la route bu Serigne Fallou. di di foofu ci Pape Seck muy jàmbaar lool ci transport bi te bëgg ko te di ko doxal ah, fan yi passé rek mu di fi jëf-jëf yu rafet ànd ko équipe bam gaar su taxi bi nekk corne su daara ñu ngi leen ciy jaajëfal di wax ne ah, noonu rek la ndax toog ci dëkk bi di xaar naan autorité sàngam autorité sàngam wala bool volonté te ñun ñu mën di jéem suñu kéemtalaay kattan war ko mën def liggéey ci sëñ bi liggéey ci suñu bopp kon yaakaar naa loolu mu def initiative la boo xam ne ñu ngi koy rafetlu muy Pape Seck ak équipe bi mu àndal waa garage taxi nekk Koungheul daara rafet na Pape Seck yaa ngi ci kaw te loolu lu am solo te baax na. di ñëw sama garage bi nga xam ne ñoo may délégué di ma yónnee tout le temps di ci nuyu ku ci mel ni Serigne Mor Niang vice président en même temps chef de garage bu banque islamique Aribay di ka yor liggéey bi di ko doxal liggéey bi du ko doxal doxal bu am solo. ak équipe bi mu ko àndal yëpp ku ci mel ni Adama Kane mention spéciale à ndax yaa ngi gérer bu am solo ci garage bi taxaw fa taxawaay bu am solo dafa liggéey liggéey boo xam ne bu mucc ayib la te ñëpp nangol la ko yàlla na yàlla jaajëfal la jaajëfal gaa yi équipe bi ak Serigne Mbacke Seye ak euh, Modou Dia ku lim da ngay juum di nuyu tamit suñu jigéen bi nga xam ne nee na moom garage bi rek ko ñor te mi ngi taaxeerlu rajo bi di ko bàyyi xel. Euh, ñu difa laal ci mbaxal mbaxal mu am solo muy soxna Bousso soxna Bousso Dieng café Touba yu baax yeeg ñoom wasi ak sama soxna soosu di Amina Fa naa sal di ko nuyu di ko ziar Ami Fall ba ci kër ga ak sunu yaa yi ñu fa nekkal yëpp ku lim juum mu mel ni am nañ gan gi nga xam ne comme jotaayu chauffeur la chauffeur la muy Abdoulahi Ka chauffeur Tata wala chauffeur Vert Baran Ah, ziar balaa sax bu ma sañoon du ma tudd seen tur ndax dañuy xool ñu leen soob ñu di leen jox seeni i pub pub yooyu noonu te man fii laa am fii laay safoo fii laay ndamoo naa ko fi man di jàllale ndax ñi ñuy def ak noonu war nañ ko mën a def ak man moo tax du may sawar di tudd seen tur waaye maa ngi ciy nuyu ku ci mel ne aada kan moomu doon responsable ci ñoom ak Modou Mbaye sama xarit ak daam joxaane safoor weer balaa maa ngi koy nuyu di ko ziar ñu mel ni am nañ gan bu nga xam ne ci ñoom lay yëngu. ñu dalal ko tey di chauffeur di Abdoulaye Ka doon chauffeur en activité te émission émission sever la xam naa dañ koy bàyyi mu présenté wu te nuyoo incha allahu rabbi ñu commencé waxtaan yi ndax tey yaakaar naa dina ala daw mi fooye bu nekk war nañ cee mën a laal ndax ku bokk ci gétt gi naan ci soow mi toon sëñ Abdoulaye bisimilah. asubilahi mina seytaan rajim bisimilahi rahim ñoo ngi santaat yàlla julli ci yonent bi. di sant Cheikh Ahmadou Bamba di jaajëfal Sidi Ibrahima Fall Lamp di ci raw la kër maam Cheikh Issa ñoo ngi nuyu mbooleem kuy diglu wala ngay dégg rajo bi di Baol Média FM di la siyaare te di la jox sa wàccuwaay bu baax a baax te di la ñaanal jàmm bu baax a baax a baax di sàkku nga ñaanal ñu ko ci noonu la ñuy profité di nuyoo alxalifatul am tarixati muridiya ay Cheikh Mouhamadoul Mountakha ibnu Cheikh Mouhamadoul Bachir ibnu Xaadim Rasul di siyaare it bu baax a baax mboolem njabootu Cheikhul Xadim gi yëpp la ci commencé ci Cheikh Mouhamadoul Mourtala ba ci eh, li commencé Cheikh Mouhamadoul Moustapha ba ci Cheikh Mouhamadoul Mourtala ñi siyaare ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di nuyu mboolem ahlu transport bu ñu jiitalee président yi di ko président national dañuy day matale yëpp rek ñu ngi siyaare ñëpp dina jox seen wàccuwaay. kon xam naa dañuy gàttal nuyoo bi jërëjëf sëñ Moodu. jërëjëf Abdoulaye am na solo macha allah mat na te it matale na di la si jëfal bu baax di doole siyaarewaat bu baax sunu way dawlu yu fi bawoo bokk ci secteur transport moo xam chauffeur nga wala apprenti wala client bi nga xam ne da cee duggoon te sama borom moom ba kanam ci yoon wi muy dogalu sama borom di leen ñaanal yàlla ñi ci faatu yëpp yàlla na leen bu bur yàlla jéggal taxaar leen arjana fi daws ñi si gaañoot yàlla na na yàlla sa borom fëgg seen bopp saafara leen di ñaan yàlla bu mu fi am wala yàlla nay gëj tey it yàlla nay sore tey bu bu munta ñàkk yàlla na doo dégâts matériel kese dong ci barke Seydina Mohamed noonu la ñuy nuyoo ku mel ni alaaji Saliou Kane sama xarit di nuyu euh, waa transport yëpp jërëjëf euh, sëñ Ablaye sunu diggante transport ku ko wax wax ko ab laay mi nga xam ne transport la yor di ci yëngu te xam ko te nekk ci wala boog am na lu mu ci jot a xam di ñaan sa borom màggal maam si Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul gii nu dëgmal mal na ko yàlla fekkeloo ak tal te buñ ko fekkee yàlla na ko mën a nettali ci barke Mamat loolu dinañ ko dugg ci waxtaan ak yow te ni ñuy wax ci chauffeur yàkkamti yàqule waa ilaa ñam-ñamaat day gën ñam benn yoon te it kooku ci nekk xam na ne chauffeur moom bu événement jub see rek da yaakaar ne tout le temps war naa profité lekk lépp ci na ñi max ko sañ waxal. kon soo toogee fii doonu chauffeur te da dawal ci événement bu mel noonu ana lan nga war a ñaax chauffeur si wala autorité yi lan lañ war a mën a jël ba fàggu te néggandiku ginnaaw ko màggal gi ñëwagul waaye dan mën naa la semaine bi bu jàllee rek luñ ci topp rek. màggal gi dañ ciy dugg si incha allah Ablaye. waaw jërëjëf sëñ Modou question bi am na solo lool waaye bala ñu ciy àddu xanaa ñu njëkkante nuyoo mboolem ñu ne ci rajo bi bu ñu tuddee kilifa gi di sëñ Modou Diop caat dana matale yépp mm. li nga waxee lu am solo la. muy màggal gi ñu jub yàlla dogal li ci des mën naa ni la lu néew la waaye lu des la bi ci jiitu mooy sëfoor si ñu am ak dal am ak dal dont ni moom lu mënta ñàkk faaw mu am ñu am ak dal waaye am ak seetlu ci li ñuy def waaye am ci ak yar gu mat sëkk waaye wane ci pas-pas ak passeef wane ci ak dëggu waaye wane ci loo xam ne ci nii ku la ci gis du la ci du la ci yàpp wala mu di la ci xeeb mënuñoo yóbbu lépp it waaye kenn ku nekk liñ ci war a yóbbu rek nga yóbbu incha allah ñu ànd ci ci respe ci ak dal xam ni ñi ngeen di jël ay taalib lañ comme yéen waaye di leen yóbbu ci bis bu màgg bu tedd bu sell mooy bis boobu ni sëñ Touba moo ko santaane ñu di ko amal li ci gën nag mooy ñuy farlu ku ci gëmmentu nelaw ku ci soonu dallu bu mënee sax oto bu nekk bu dee day génn wut ñaari safoor dana ci dana ci gën waaye nag bu dee kenn rek moo nekk ci oto bi mooy dem ak ñëw di dem ak ñëw di dem ak ñëw te du dallu bu yàggee gëmmentu dal la te ku xam ni safoor diggante bi muy bi muy dawaleeg bi nelawee lu gaaw lay doon mm-hmm. nelaw safoor daa gaaw lool ndax nelaw ci boppam moo gaaw kon daal li ci gën mooy ñu fexe bay dallu di nelaw waaye ñu wane ci pas-pas ak passéef gu mat sëkk. Mm-hmm. waaw jërëjëf Abdoulaye loolu am na solo mais ba tey pour man. yaakaar naa des na parce que bu ma déggee sa biir wax mooy ku ci mel ni ànd ak ñaari chauffeur mais jàpp naa ni ñaari chauffeur bu ñu nekkee ci oto bi benn chauffeur lay daal di dikk ndax euh, li tax mu doon benn chauffeur lay dikk mooy li mu yëg nga yëg ndax chauffeur bu dawlu dend ak morom ja daanaka yeneen da ngay dawal ndax bu feree ne nga feree ne bu accéléré nga nga nga accéléré tey coono ga nga xam ne nii war moom nga la jànkonteel moom ngay jànkonteel ndax da nga waroon a reposer ci kër bu ñëwee jox la nga dem moom war a mën a tedd mais su tëddee ci oto bi ngeen ànd yaakaar naa ba tey benn chauffeur ci lay compter mais ba tey foofu ñu dugg si fi euh, lu mat di waxtaane la doon ko ñëwut ndax ñaaxante ak soññante bokk na ci ndax li nga ko wax ne ay taalibe li ñuy indi damaa gis di faral chauffeur si di ko teg ci bopp client yi wala ndoddum client yi muy lu dem ne paas bi nga xam ne ay huit mille la ñuy wax wala sept mille jëm kaw te ki ngay yeb li ngay wuti si wala fi nga dëkk wala nga war ko faa yóbbu loolu rek lay wut ngeen bokk ko watandoo kon paas ba yaakaar naa am na ñu ci sëfa si war a jàppee ba li ngay liggéey dina barke dana ñoŋ te ki nga yóbbu xolom dina sedd incha allah ana nan nga war a jàngate loolu mu tax sëfër si war ko mën a bàyyi xel waaw sëñ Modou <laughs> yaa ngi wax lu doy waar muy wàllum yokk paas bi wàllum yokk paas bi ci bu màggal gi jubsee wala événement yu ni yu ni mel euh, yaakaar naa ni suñu réew mi moo baaxoo loolu maanaam bu dara xewee rek euh, maanaam li ñu njëkk a def mooy yokk moo xam paas bi moo xam leneen ak leneen leneen maanaam lu leen di yittewoo rek yàlla day dogal li buñ ci cubloo ñëpp soxla woo ko te ñëpp war cee manaam dañuy fexe ba yokk ndax nag xam nañu ni lu ñu leen laaj dinañ ko fay waaye ci benn côté man dama cee gis tolérance yenn yokk yi mën naa mën naa bañ a mam ndax dangay gis ku yooroo dakaaru Touba gi dawal sa xoot oto dem ba dakaar pour jëli client ñuy ñëw kon am na boo ko ci tegee jaadu na waaye yenn yokk yu ëpp yi moom wax dëgg yàlla rafetlu wu ko moo xam ci transport en commun bi la moo xam ci transport urbain bi la Euh, surtout nag li ma gën a gën a gën a gën a mën a wax euh, wala di ko ñaan mooy suñu mbokk mbàkki Touba yi ak suñu mbokk taximaan yi gis nañu ni ba fen maa jotee wala mu doy ni màggalu Touba dootuñu dootuñu respecté seen tarif tarif sax amul ci dëkk bi waaye danañ koy yokk yokk yokk ba client yi sax bu ñu ñëw daanaka li ñu fay fii mooy mooy gën a mooy gën a seer li ñu fay feneen kon ñi ci dëkk bi nañu nañu gën a sàmmanteeg loolu gën a respecté loolu dana ci am solo lool wax dëgg yàlla. jërëjëf Ada Abdoulahi boog di moos kontaan nañ ci ning ko faram-fàccee muy lu am solo te it lu mat a bàyyee xel la euh, mbaam gàtt na waaye ci jur gi la bokk ndax transport la muy lu am solo li nga wax muy taxi euh, man sama borom daa dogal ma bokk ci ñuy taxi. te danañ ko bàyyi xel ndax euh, wax naa leen ko waxati ko genn yokk gi ku ko ci def ku nekk rek sa bopp nga koy defal te du la amal njariñ wala njariñ la du sori te du yàgg doon ko ne mënta ñàkk da ngay xool xayma méngaleeg li nga xam ne moom nga koy yokke ku ko dégg rafetlu ko tam doon lu jaadu ñu ne mënta ñàkk waaye yokk gi nga xam ne ku ko dégg naan ah doy na waar client bi fayee dagaan nangam te ñëw daanaka yow nga bëgg koo fayee ko at paas bu duubale foofa te génn dëkk bi du lu jekk du lu jaadu ku ko ji def ku nekk na ko baax te xam ne bu fekkee dangaa dëkk ci dëkk fas yéene liggéeyal sëñ bi doo ko def kon nañ ko bàyyi xel mu mel ni aada yow Abdoulaye génn kuñ ci chauffeur chauffeur nga xam ne dana ñëw ci sa mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi da liggéey di ñu koy wax xam nga vert blanc la nga xam nga vert blanc nga bokk ci nga bokk ci sëfër si danañ ciy dugg si bu baax a baax ah. ndax am na question yu war a dox suñu diggante ak yow buñ faralee di wax ne garage sëfër loo wax wax ne garage ana nan nga jàngate yowum garage mi nga xam ne client yi ñu ngi ci biir territoire bi di dem ci lu mel ni oli yi nga xam ne ñu ngi koy tuddee ay rond-point di fa dugg te bàyyi fi oto transport yi ñu koy wax ay war gaynde la xam war war war war kii ana lan nga jàpp ne chauffeur ci biir gaar ñoo leen koy def ba tax client yi di mer di ñëw foofu di fa moo gën a gaaw te doo ci am coono. waaw sëñ laaj nga lu am solo waaye man toujours ci sama xel mu gàtt laay waxee donte ni li ñuy wax it jàpp nañ ni bu fekkoon ni ñu koy dégg ñi ci dañu xam ne li may wax lu res lu lu wér lay doon man jàpp naa ne loolu ñaar waral na ko ba ñett. li tax client yi ñëwatuñu ci biir garage bi jàpp naa ñaar ñaar waral na ko ba ñett bi ci jiitu mooy oto yi léegi garage yu bari oto yu coffre amutu fa daanaka côté yi nga fay gis chauffeur yoo koy dawal ak ñi cay yéeg côté yi ren maa màggatuwaayu oto bi. dana dana bokk ci li tax ñu di ko daw. ak yàggaay bi ñu yàgg ci biir garage bi loolu it dana ko waral. Babla yaa ngi bëgg a jaay sa moo ci oto bu bees nga nekk. non fekk nga oto yi nga. xam xam nga ñi ko am di ko suturoo nga bëgg ko dindi. ñun entre urbain la ñu def dañuy urbain ci biir dëkk bi. mais ñax boobu day lakkaale gu tooy. mais mais bu ñu waxee yow li ma la xam nga ne lu wér la. non. li ma la wax xam nga ne lu wér la. gaara oto yi confort ñu oto yi ñaareel ba boo fa demee maanaam ni ñu ak accueillir mën na fa laa merloo loolu lu wér la kuy dem ci garage dina xam li may wax lu wér la. ak lu mën a xew soo demee dañ la dinañ la ak accueillir ak boobu nit ñi yow sax da ngay da ngay gis nit ku génne ci garage dem feneen di duggi ndax wax nañ ko fa la ko met moo xam emprunté ba la moo xam chauffeur ba la moo xam coxeur ba la et puis booy xool da ngay gis ku mën a fay 7000 te waroon a fay 3000 kon am na lu tax muy confort bi ak yàgg gi ñu yàgg gaaraas taxaw loolu bokk na ci man sama xalaat jàpp naa ni ñaar yooyu moom mooy priorité bi ci des mooy nag kàddu yañ leen di ak accueillir dafa des bu baax a baax a baax a baax dem ci gaaraas ak gisoob kiliyaan ak kub ko sor xuloowuñu loolu jafe la wax dëgg yàlla. est que du nga yaakaar ne yàgg googu oto bi yàgg a fees est que du client bi nga xam ne ni mooy bàyyi gaaraas dem di duggee ci territoire yi moo a yàgg gi. xam nga boo demoon gaaraas garage bi boo fa demoon ay rang am na sept place am na kaar am na mini car. am na set place raayof ci sept place bu taxaw fees. yaa ngi dégg maanaam gaaw naa fees waaye oto bu war a def trente cinq personnes su taxawee cib garage ñu bari dañ koy wëy. da ngay dégg ñu naan la garage boo fa demee da fay yàgg demal garage nga jël oto boo fa demee ñu ne la dee demal biir nga jël ñu ne la garage boo fa demee da nga fay yàgg yab bi moo gaawutut te sax bu dee ñu ëpp ci li ñu wax man dégg naa ñu naan bu dee ni yamub Tuubaa bi doxee yeneen ni doxewu loolu nag ak ndimbal da cee am ak ndimbal gu rëy da cee am kon li gën mooy li ñu yàgg di wax mooy li ñuy bindu ay ati at gis ni maam daal di bindu di bindu ngir saase oto yi saase oto yi te yow ba tey oto yi fi doon daw ñoo fi daw c'est normal oto yu yu ci ëpp daal war nañ leen war nañ leen mën a sensé waat wax dëgg yàlla indiwaat feneen oto yu bees yu confort yoo xam ne ni client dinañ leen bëgg booy xool oto yi nga xam ne ni ñu ngi ci biir garage yi te confort lu ci mel ni force yi boo demee garage bi ñu taxaw ndax ndax douze places la ba pare am na kilim kon li ma doon doo wax au début mi ngi dikk ne la oto yu ci ëpp màggataay gi la nit ñi di daw kon li war mooy. parc automobile bi moom li ñu yàgg di wax état di ko wax di ko wax di ko wax mu ngi ciy liggéey waaye li mu ci liggéey ci boppam la jëm. ba tey génn ko ci li ma la waxoon léegi daa mel ne da ngay wax ne ku bokk ci gétt gi naan ci meew maanaam daal yow yaa ngi ci oto yi confort yi taxam na ñooñu ci nga leen di xëcc pour pousser leen ci ñu nekk ci. Modou man oto bi ma yor ci dëkk bi lay daw day urbain defuma entre urbain. Ah, danga maa laaj ci entre urbain man laaj la ci ma wax la ci sama xalaat. kon xëccuma client bi ñëw ci man ndax man du ma yóbbu ko jëm njéeréem du ma yóbbu ko jëm du la du ma yóbbu fenn man ci dëkk bi laa yem ci dëkk bi laa lay jëlee yóbbu la ci biir dëkk bi effectivement mais transport la xam nga transport moo tax ma leeral la loolu xam nga nag euh, muur maa ngi ñëw il faut que ñuy ñuy wax réalité bi li am mm. ñu di ko wax te bañ koo nëbbante ci lii laa bokk rek mm. naa ko jagal naa ko defaral déedéet il faut que ñuy wax li am état dafa war a góorgóorlu ci oto parc mobile bi ñu changé ko. ak nu mu mën léegi ma ma ma posé la benn question. mooy mooy mooy tata confort na wala confort tata. tata confort oto ba mu 10 ans confort. Hmm. yi ah yooyu xam nga li ma la wax. jërëjëf <laughs> Abdoulaye maa mbokk yi ak tata yëpp. lu ci nuyoo suñu Saliou Diop rek. dafay matale suñu xarit yow jërëjëf ñu ngi ñu ngi <laughs> ñu ngi lay jaajëfal ci question bi am na solo ba tey di ñu génn foofu ndax. dañoo wax ne transport ci lañ nekk tey te ku wax transport waxu yoon tey yow ci dëkk bi nga nekk di urbain yaa ngi gis yoon yi nga xam ne muy demukaay yi mu am jafe-jafe lool te màggal Tuubaa gi buñ ci egsee ak ndox mi pax yi nga xam ne ni moo nekk ci digg tali bi ñu yàgg di ko wax ñu dikk réclamer côté bu nekk soo fedee lim fi mu nekk fépp ci dëkk bi doo fi jóg am na loo ci xam wala xam nga ci lu bari léegi nag euh, loolu autorités yi ñoo ko war a def wala le maire de commune wala transporteurs yi ñoo ko war a def wala jàngat ban nga jàpp ne suñ ko balaa mee saafara war na cee mën a am ba mu yomb. jërëjëf sëñ Mourou laaj nga lu jar a laaj. muy yooni Touba yi ñoo ngi nuyu bu baax moom Cheikh Mamadou Bachir ibnu Cheikh Abdoul Khader moom mu yore kàddu yoon wi. Hmm. keroog altine wala talaata su ma juumut. barki démb altine la waaw bi 16h jotee wala 17h doon na def benn conférence bu jëm ci wàccaayu màggal gi waaye ay point la ci wax wax ci ay point da cee wax nag point bi ma laaj da cee wax muy tëli yi ci dëkk bi sëriñ bi dafa nangu ni dëkk bi moom képp ko fi jaar nangu nga ne mu bu baax bi képp ku nangu nga ni amul tëli bu baax du benn nag bu ci baax amul wala li ci baax yu néew lay doon Cheikh Amadou yi du wax na ni tëli ci bëri dañ ko defaraat ba am yim ci tudd ni yooyu nag fii ak màggal gi day xat muy lu mel ni boo jógee resu ba tolloo kër Alaaji Baara jëm jumaa ji directement mi diggante kër sañ Sëñ Fallou ak Sëñ Blaat tëli boobu moom lu ma metti la ndax lu ñu war a gis nga tëli ci yoon yi sax garaawut mën nañoo ñag-ñagal waaye jumaa ji moom lépp lu fa jëm waxoon naa ko fii émission budul benn bu dul ñaar nee naa jumaa ji lépp lu fa jëm tëli boobu war nañ koo defar ba mu baax te jumaa ji booy xool mbedd yi fa jëm yépp yépp yépp tëli baaxuñu gis naa nañu defar li commencé corniche su daara mooy tëli bi jóge noonu jëm jumaa ja defar nañ ko defar mucc ayib jaar naa fa fa ñuy jàll waaye li commencé ci soow jumaa ja muy ngi naan ko lim njugo kewe bi liggéey boobu moom sëñ Mourou yéex na lool lool te màggal gi jub na liggéey boobu moom bu dee kilifa yaa ngi dégg yéex na lool te gi jub si na yoonu gere wit gis naa ñu ngi koy defar yoonu gere maa maam ci gàttal Touba boo doon lim fukki tëli bu fekkoon ñoo fi nekk benn bi moo ci baax tax sax xaaj bi moo baax xaaj bi loolu am na yu ci état war a defar muy xooli tëli ba mu jekk mu defaraat ko loolu état la war waaye nag rakkise maa pax yi nekk ci tëli bi nga defaraat ko nag xanaa moom maire moom lu mu tële tëli war naa mën loolu. Hmm, yaakaar naa ko de. lu mu tële tële tële tëli war naa mën loolu ndax nag wax dëgg yàlla bés bii ñuy dégg ñu moom la moom la ñuy moom la ñuy natt ci dëkk bi déglu naa démb ku mel ni Cheikh Abdou Mbacke Bara Dori député ci war ñoo teewal assemblée mu lim ni 27 milliards yoo xamante si nii 27 milliards daa la wax de. Mm-hmm. yoo xamante ni def nañ ko budget Touba ay tali ak yeneen ak yeneen. 27 milliards waaye waaw loolu nañ ko ci 2023 bi ñoom wate nañ ko ci 2023 bi yaakaar na 2023 4 mois ci war a des fi nii xam mm-hmm. nga bu ñu watee nag. ba année bi nga ko watee li waaj a jeex te gis ñu ci benn changement man budget boobu jàpp naa ni moom ay wax la rek. doy bi ci des mooy. télé bu doy ni corniche nga defar fa autoroute xam nga ancien garage ba corniche daar loolu autoroute la. Mm. au lieu que autoroute à péage. Mm. du péage ndax doo fay. Mm. waaye autoroute la. télé bu doy noonu nga defar ko ba mu yegg ci benn canalisation su tawee. ndox mi ci dëkk tëli bi lay maanaam tëli boobu lu commencé boo weesoo diggante ñaari pono ak yoonu daaru tëli boobu benn ci benn vague la ñuy ndax ak yàqu mat a boo demee corniche sëñ Muudu nga yeggee ci euh, maalum rool yi ñoom it benn côté la ñuy jaar waaye laay tëli yi yàqu fi boo ko dee lim fi yooyu yooyu dafa nekk yom nit ñi mënta xaar liñ naan mënta xaar priorité la priorité la loolu nag damaa jàpp ni ñu ko war a defar dañuy nelaw wala dañ koo gisut wala dañ leen koo waxut wala waaye man dama jàpp ne xam nañ ko war xam nañ ni lii daa yàqu ndax loo dem ba porte parole di ko wax ñoom xam nañ ko kon nañ koo defarut ngir yàlla nañ ci xool suñ bi defar ko. jërëjëf kàddu yi leer na te am na solo jërëjëf bon volonté yi ñu ngi lay dégg les autorités yi ñu ngi lay dégg xam naa danañ ci bàyyi xel. xam nga mu doon sax ma ma ma ma potoxlu ci li nga ni bonne volonté yi. damay gis li yenn saa yi Touba ci kanam ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ay jàmbaar lañu lool ndax booy xool ay am na ay yoon yoo nii bu nawet jotee kenn mënu fa woon a jaar waaye fexe nañ ba yoon yooyu bu nawet jotee ñu di jaar waaye waxuma la woon sax nawet bu woon nawet dem dafa jaa am am lu la daan yóbbu dana daan jafe waaye ba heure boo jugee di nga am lu la yóbbu ndax defar gi ko defar buñ ci tuddee saxaw ga télib saxaw ga gis nañu ndaamaatu télib bañ bañ fa def waaye dana gis télib yàqu nit naa la waa Touba ci kanam lu ñu xaar ci lii Touba ci kanam dénk ñu leen dëkk bi waaw dañuy dañuy def rek te sëñ bi tax kon yenn tël yi Touba ci kanam dañoo baax di ko def rek yenn yoon yi lii war meer nag na ko def su fekkee ne lii ëpp na ko doole mu bind kayit état état defar ko waaye procès yaa ngi procès yaa ngi procès yaa ngi chaque jour procès yaa ngi te ñun gisuñu dara l'avance ci procès yi ñun moom bu yàggee procès yi dama yaakaar ni ah ñun bëri nañu procès de te benn avancé wu jox dëgg yàlla. jërëjëf am na solo Ablaye ci loolu la ñuy fabee di ci sukkandiku man cee dugg si ci état bi nga xam ni moo war a couvrir lu mel ni màggalu Touba ak lu ko demee noonu évétement yooyu nga xam ne ku wax événement màggal Touba wax transport wax oto ndax mooy sëf di indi passager yi ñu mën a dajaloo ci dëkk suñ Touba bi wala feneen di fa màggale màggal gi. te boo waxee aw yoon danga wax bu baax ndax sëfoor ba cay dawal bu baax la ca sàkk koo gis ndax mu mën a moytu si naa ginnaaw bu mu defaree otoom ba pare ba noppi te xam nga ne ab tali comme ni nga ko waxee du ñëpp yem am na ci ñoo xam ne maag ñoom a yem maag ga am na ñoo xam ne teey da leen a yombut ndax seen jikko la te mënoo mënoo ko dindi ci ñoom lu mel ni pax yooyu bu ñuy oto rangaloo am na koo xam ne ma ngay daw xel woo xam ne bu egsee balay xam ne fii embouteillage fa am ndax pax gi lañ doon moytu rek boo moytut maar day taal yi ak nam accès waaye ilaa boo ko séenit mën ngaa laal pédal taxaw jafe la nga gis leneen saafara sa mooy dóor ko ci oto ya kon loolu noo jàpp ne ban disposition la état war a mën a jël sàmmoonteeg accident yooyu ba mu mën a wàññi ko ci lu mel nii màggal ak Tuubaa gi nga xam ne ñëpp a ñëw tey ban fan lañ jëm Tuubaa rek mooy l'essentiel foofu lañ jëm ban disposition la ji état war a mën a jël ba taxaw ci lóoru ndax kat bu accident amee duñ xool taliba na mu demee woon ak nañ ko defaree woon safoor bi rek la jël teg ko ci mu doddam ne mooma xam nga li nga wax bërki démb su ma juumut am nañ jotaay bi ñu doon wax ci mbirum accident yu bëri ci dëkk bi bu ci mel nii bu sàngal bu kii boori kii bi quarante personnes yi faatu woon hmm, kii yàggul dara amaat Louga ci wee yi ñu mujj wala fa nii mujj am bu amaat état bi bi mu ñëwee fii laa ko lañ fi débat woon édition spéciale hmm. bokkoon naa ci ñu teewoon ci plateau bi bokkoon naa édition bi jiitu loolu moo woote woon ci biñ nee état bi mesures yi ñu jël pour wàññi accident yi dama ni leen état jëlul mesure buy wàññi accident xañ na bu ko yokk dama na ko indi waaye du buy wàññi. Mm-hmm. accident yi amee ñetti baat yi ngay dégg ñetti yi moom di ko dégg tëli yi ñoo baaxul dañ leen a war a defar oto yi ñoo màgg dañ leen a war a changé bu mu ci gën a métti mooy sëfoor si dañoo xamante ni duñ ñu sëfoor si dañ leen war a teg ci condition yu baax. Sénégal laa gis chauffeur bu amul benn benn maam maam maam ñoom teguñu ko fenn. non état loolu moom yéen a ko. non rek yéen chauffeur si yéen état état war naa fexe ba kenn ku nekk di am contrat de travail. gis nga yow boo boo jiitee boo yoree say ndaw man waxuma ci politique damay wax ci chauffeur pour ñu comprendre fi ma bëgg a waxee fi may wax it état da ci am rôle bu rëy bu mu ci war a def te defu ko état bi mu jëlee transport di ko def muy transport boppam. muy transport bu muy def muy Dakar Sénégal lim dikk yi. public public non du public. yëfam état état administration mu fexe ba muy Dakar dem dikk yi fexe ba Sénégal dem dikk yi dégg nga ko ñëwee da cee def soog. sëfoor ci ay confort sëfoor ci ay ci ay yu leer lañu leen teg ay ay contrat yu wér di leen fay salaire yu baax ñuy dallu am ay conseil ni mu jàppee ay sëfooram su ko jàppee ni sëfoor yooyu mu yore Dakar dem dikk Sénégal dem dikk sëfoor yooyu la war a jàppee yi nekk ci ku yor sept place beeg ku yor kaar beeg mini kaar beeg bis beeg seexu sérif beeg ak tata beeg vert blanc bi kon day mën naa ne accident bu dul amit dana wàññeeku lool lool bërki démb rek am na ci suñ mbokk yu def grève soixante-douze heures ëpp ko ndax lan contrat de travail moo tax état mënta mënta jàppale ay ndawam ci loolu yow da ngay ànd nit tey tey tey bu subaa nga dàq ci dara safoor si cër bi ñu leen war a jox dafa des lu bëree bëri yàlla dogal njiit yi ñu am yi ci ëpp maanaam doxuluñ li ñu war a dox seen diggante ak ñi leen jiital dañuy dox ngir seen diggante ak seen bopp seen intérêt yi bopp loolu moo am nañ ko waxte dee syndicat yi ngay dégg regroupement yi ngay dégg ñi ci ëpp ndax bu ñëpp yemoon am ñu gedd seen cër waaye ñi ci ëpp te defuñu ngir safoor defuñu ngir dara seen intérêt yi bopp lañuy def loolu moo am safoor si boo buñ la jiitalee biñ la jiital amoo dara danga leen a war a jàppale war leen a taxaw war leen a mën a dooleel bu seen bët du xonq waaye lan ngay wax waaw ku sa bët ku sa bët xonq bu ñëwee ci man ma saafara ko yow ma mënoo koo saafaraal ba bëtam du xonq waaye faaw bëtam nga bàyyee ko di ko seetaan bëtam xonq nga soog kaa saafaraal kon président groupement yi président syndicaliste yi ay waay nga la nañu jàppale safoor si xam ne fii ñu nekk safoor si leen fi teg si dong leen fi teg waaye safoor si dañ leen a seetaan seetaan gu mett fooyu ñu leen salaire yu baax defuñu leen ay contrat de travail embauché wuñ leen ñoom mën daal aw ñoom daal man sofóor si ñoo ñoo war a ëpp ay ay ñoom ñoo war réew mi dañ leen war a respecté mais ni leen tra seen patron yi dee respecté wut noonu la leen client yi ci ëpp respect ñàkk respect ndax fi leen war a teg lañ leen tëggut sofóor si dafa ñàkk ndey xam nga kii eh, ministre bi waxoon na ko Omar Youm ni sofóor si booloo wuñu waaw booloo wuñu tey li ma lay wax xam nga ko ñi ëpp ci ñi may dégg xam nañu ko li tax boolewuñu mooy seen njiit yi ñoo bokkut ñoo boolewut région Diourbel gii xam nga région Diourbel gii kase ndax fi laa dëkk fi laay waxee région Diourbel gii transport trans njiiti transport yi fi nekk boolewuñu nekkuñu benn fii nii fii damay dégg ñu naan diw diw président euh, département bu Mbàkke amu fi département Mbàkke amul président Mbàkke dañoo am seen président Touba am seen président président régional bi sax mën nañ koo jàpp waaye département Mbacké bu fekkoon dañu fal président man ab Ablaye nekk chauffeur yore transport en commun damay dem wate ji ndax ci département bi laa dëkk mais dañu ko dëkkul Mbacké doo wate kon nañu doxaw foofu di xool ni bañ di wax ni man président département laa déedéet département bi amul président Mbacké gi mu nekk président bi nag mooy département bi waaye tëxul transport bi maanaam lëkkaloo ci département bi dañ koo xaajale hmm. transport bi dañ koo xaajale buñ doon liggéey dañu fexe ba Touba ak Diourbel nekk benn waaye Mbacke dañ koy sippi waa Mbacke ñi fi nekk bu ñu liggéey dañu sippi Diourbel sippi Touba ak yeneen région yeneen i garage yu nekk ci dëkk bi wala yu nekk ci département bi ñoo ñooñu nag buñ boolewul seen biir nan la nan la transport di avancé nan la safar si di gis seen bopp ah yaa xayti jërëjëf Abdoulaye am na solo macha allah taarifakàlla wax dëgg yàlla ku ko dégg xam ne am na solo ñu ngi siy kontaane di jaajëfal mbokki auditeurs auditrices yi déglu yëpp xam ne ni am na solo di wax ne seen émission jotaayu chauffeur fii ci rajo Baol Média rajo bu mag bi ci Mbàkke ki leen koy anime di seen doom seen xarit Modou Lay président regroupement chauffeur taxi nekk banque islamique ñu bëgg ñoo jot ci émission bi ànd kook ñun da ngay jaar ci 88 628 81 08 88 628 81 08 wala 6 88 628 19 cinq 05 88 628 19 05 di del si di jaarewaat sama mbokku taximaan yi président yi ku ci mel nii président Matar jaw fédération ànd taxaw sunu tax alaaji Pape Ndong sama xarit maa ngi koy jaar sëriñ Modou Sall hôpital Ndiaye sëriñ Moussa Pouy kër sëriñ Siri Muxtaar sëriñ Cheikh Dieng aaj Umul Xura Baye Bas Baye soow ñooñu ñëpp ñu ngi leen ni béggee di leen jaar di leen jaajëfalaat ba dañ jëlew gaaras Dakar Demba Diop Modou Fall yooyu yëpp ñu leen di jaar euh, Abdoulaye nga wax pour ñu bari yu am solo ñu man cee dugg si tuuti ci liñ ci xam ak su néew ñàkk booloo gi séparé bi ak euh, état bi ni mu jàppee ay chauffeur ak ni mu jàppee ay chauffeur foofu danañ ci am taxaw seetlu tuuti ndax aada euh, ndax Abdoulaye état. transport am ak transport privé mënuñoo bokk diamétralement opposé ndax chauffeur bi dana ko mettee condition yu baax yoo xam ne ku ci nekk moo gën gën a gut ki ci nekk ci wàllum transport fa laa koy waxee waaye du question moo ko gën ci mën a dawal wala moo ko gën ci juddu wala leneen ndax wax neex na waaye dégg ko mooy dàq fañ ko war a waxee ndax état bi bu la récupéré dina la verser IPM retraite say famille ku si feebar ku ne dina la jël en charge la ca war mu def ko tey oto bi tey par exemple boo ko jëlee woon Dakar ñëw Touba jóge fa 7 boo ñëwee doo gontaat 3 heures dem safar boobu da ngay fanaan boo xëyee waaye li ngay wax lu ci ëpp ñun ñoo ngi ci biir ñun chauffeur si kenn demut ñu des lu ci bari ñoo koy nangu sunu bopp lu ci bari ñoo koy teg sunu bopp ndax dangay gis chauffeur ñu ne mën naa nangam ci oto beneen chauffeur ñëw soofu ko ne mën naa nangam gën a yokk la nga xam ne moom lañ koy laaj ci versement doo wax mukk sa mbokkum chauffeur mi nga xam ne moo yor oto bi ci moom der bu rafet noo jëlee place ba wala noo ko jëlee jox ko sa morom doo ko seereel loo xam ne ni leer na la yow bëggoo woon ñu seereel la ko ñun dañ koy defante ñun chauffeur ba si topp mooy signature contrat yooyu tey boo gisoon kuñ fay cent mille mën ngaa gis ku ñëw ne man damaa quatre-vingt mille ndax maa ngi ne maa yorug njaboot sama njaboot ga nangam ak nangam fekk na yaa ngi bañ loo xam ne da ngay dimbali ñeneen ñu nekk ci yow même yow suñ la ko nangul ëllëg keneen ku ñëw danañ ko ko war a mën a nangul mu jóge ci yow yàlla dina la ci fay waaye duñ ko def dañuy nangu li nga xam ne moom mu te ñàkk ne arrangement la nga daat koy jël engagé ko te fekk ne yaa ngi lor keneen ku ñëw ñëwagut ci yow ëllëg danga taxaw bëgg koo bañ borom na la lii moo fi amoon lii soo ko mënut a ma jël la ma jël ko jox sa morom chauffeur si ñun neexunoo jagal xanaa dañuy wax sunu wàll ak sunu liñ ci mën ak sunu tolluwaay rek ba romb ko jàll ñu romb ko ñeneen ñëw waaye pour nu booloo pour nu bennoo pour ñu jag yombut ndax ñun ci suñu bopp ñoo waroon a jag ba pare dooroo wër ku ni boole jagal na dañu waxante li nga xam ne moo fi ne benn rek dinaa si ñëw yéen waaweer weer blanc yéen a ngi nii amoon leen contrat kenn signé lu leen ko ñu si bari journée la leen di fay bi ci topp mooy bu aide de repos amoo leen ko bu ngeen gaaree fa ngeen wax gaare douche publique amoo leen ko da ngeen di càng-cangaan dugg ci duusi jàmbur yi këri jàmbur yi ngeen di fay nekk te yéen a ko nanguti condition yooyu di ko travailler boo nekkee ci arrêt normalement buñ leen respecté woon commencé ko ci sawar parce que suñu njiit li nga wax bala oto yi di démarrer war nañ leen a mën a lijjanti douse publique boo xam ne ñoom ñu si toilette ñoom yor seen caabi heure bi bu jotee war nga ne wàcc waaye da ngay gis ku ñu wàcculoo huit heures da ngay dem ba neuf heures wala vingt et un vingt deux heures kon ñun nañu respecté ñun suñu bopp booloo xeex li ñuy xeex chauffeur si ngay wax laa fa passé mercredi ba la jàll xaw ma dimanche euh, muy afte yi nekk Dakar grève grève gi lu grève am na fu ko teg ndax dañoo nekk ci secteur boo xam ne yàgg nañ ci di ci yëngu dama ko waxoon keroog man rek ak sama émission mooy suñu papa Ndongo Fall wax ci wax joo xam ne ju ñaaw du du du tegginewut ndax buñ ko interroger jox ko micro RFM muy wax ne chauffeur am na ci ñoo xam ne dañuy lokk ay pion dañuy naan ay doom te Ndongo faal bu amee alalam ginnaaw yàlla amoon na ko mais chauffeur si ñoo ko dolli ndax mën naa ne la bu doon cinquante oto fa nekk quarante yi mën nga continuer Ndongo Fall am na ci. te foofa. moo jiite chauffeur si moo nekk naa daal Salaam siiru naa otoom. xam naa li may wax ligne 2 parcelle ligne 34 ligne 34 ligne 49 yëpp xam naa otoom siiru naa leen moo jiite daal salaam doon président ba mais dafa yéex a xam ne chauffeur si dañuy loggi pion ak dinaa ni doom ak a wan ni doom moo ne ñoom transporteur yooyu de am na ñuy wan ni doom di loggi pion te waxu ko chauffeur si la ko wax te oto bi nga xam ne nii moom lañ la jox 30 nangam million chauffeur a ko fay nga toog sa kër jaaxaan sab saal yokk sa télé say gone wër la ak say jongama chauffeur bi mooy nekk ci kaw circulation ba Dakar ni mu xate conduite fa ni mu méttee ñetti voie lay doon nga respecté ko ba wàcc jot di def say aller-retour ba wàcc jot xoosoo kenn kenn xoosul nga wàcc ñu indi xaalis bu wax tal sa nangam mille ñu ne la mënuñ laa fay cent mille yi wala cent mille yi ci lañ lay fay te yow bëggoo surne bi cent mille yi wala cent mille yi tuutee koy manqué te pourtant bokkul ak jafe yi ngay jokkandeel ak client yi ak moteur bu tàng bi ci ngay toog. mu taxaw chauffeur bi daan li ma doon liggéey ak yokk yu bari ci réew mi mënatuma jee gis sama bopp damaa bëgg ñu waxtaan nga toog nga yokkal ma nga ne ko duma la yokkal fa nga nekkoon fa ngay nekk te yow nga yokk paas teg ko ci ndoddu client yi tarifu section 1 amatut Ndakaaru section 2 rek fu daan fay 100 150 cent daan fay 150 200 200 350 nga xam ne litrage bi boo daan contené bu mu jógee joor jëm la joor su ma daan lakk 7 litres dinaa lakk huit litres wala neuf mais li nga ci yokk da nga gagné quinze litres waa chauffeur boobu la koy liggéeyal wala receveur boobu la koy liggéeyal nga ne yéene woo ko loo ko dollee pour mu mën cee gis mu kenn du lor doo lor du lor nga taxaw naan daa dana ñi day wan ni day naan doom xanaa lii nga ko gis te boo leen xàmmee kar leen nga wàcce leen dàq leen seen oto sans droit jël keneen ma ne wax dinay rafet mais nañu respecté tey suñu biir te ñun ñun chauffeur jox cër suñu bopp jox cër gi mooy. dañ nangu bu ñu nangu loo xam ne nii leer na la da nga dem ba ci kanam du la arrangé rek nga bëgg ko wëlbatiku te danga koy xeex nañu def loo xam ne nii bëggoo kenn ku la ko def ndax taxaw di seere sa moroom sëfoor naka sutu noonu te bu ko yëgee ngay dammi xeef kon nañu sóoraalante ñun ci suñu biir ba pare tàggatante suñu biir li ci bokk ci teen bi ñu jéem ku cee génne te xam ne ñunu nee na dinaa ñëw nag ci euh, regroupement yi ngay wax ci ñàkk gee booloo ak euh, syndicat yi nga xam ne dañuy wax ne ci transport ci la ñu jiite te booloo amu ñoom mooy dañuy desiwaat na ni ñun alali borom barke la ñu doon rek yatu xeexukaay lan ñuy def tey jii maa tax a coupe serveur wala ma dugg ci benn groupe boo xam ne ba ma ne état da lay récupérer na la dinaa la fay temps boo ko calculer weeru yëpp daawoo ko am te heure ngay liggéey condition doo sollu tilim doo tax dàqante woo wanaa da njaay serveur bi ne ma waaye ñun soxlawuñu soxla wu ñu yëfi état état moomu ko da koo teg pour ngay liggéey ñu lay fay weer ngay gañe di am sa salaire di jut sa njaboot di ci bénéficié wu waaye dañuy taxaw fee koo na ci kaay leen tàll loxo ñu ne defuñu loola dafa ñoo bëgg rey nangu transport bi état mun a jël transport bi yëpp ku ci nekk da nga cee jël sa wàll la nga ca moom nga ne ci lëj waaye boo taxee fii di défendre transporteur yoo xaw ma amoo pëna te ki ngay wax chaque jour mi ngi lay yat nga naan lim may def awma ci bénéfice mi ngi metti kañ la ñuy xee sëfoor kañ lay ay rangoñam di fer kuñ ciy jàppale te naan ñun ñoo ñuy jaxase kon ñun suñu bopp ñoo jaxase suñu bopp ba pare dàquma ku yor oto transport dem ci liggéey d'accord mais ki nga xamante nii tamit euh, ki fay lu ñu daawul fay ci oto bee dàqante woo heure repos day am ci yow dañ lay sàmmal sa njaboot soo ma woowee damay jël waaye kooku ji wax ku ne mu ne lu tax mu wax ma ko man daal damay dem ci minicar bi wala car bi ma yor ko ba pare taxaw lañ lay def du fa jóge soo ko bañee dal na ci sa morom nga naan kenn la ñuy am condition yu baax dañuy jaxase dañuy jax ñun ñoo jaxase suñu bopp ba pare Abdoulahi. waaw xam nga Mourou ma leeral na ma wax ji ma doon wax waxuma ni lii lañ war a def li war a nekk la xam nga toujours kenn ku nekk sa njaaw xam dañ ni li war a nekk. Mm. réalité bi loolu la. transport état daf koo seetaan. loolu moom ku ko wax looloo am état li mu seetaan bëri na waaye man ci transport laay wax ndax waroon naa ni mu ni mu jàppee ay sëfóoram mun munu koo jàppee yeneen sëfóor yi waaye waroon naa fexe ba képp kuy liggéey ci ci dara ci ci réew mi nga am contrat am embauchement. boo ko ñu ko bëggul nag. waaw ko bëggul yaa xam nga nit ñi ñëpp mënuñoo bëgg lu baax man xam nga maam. man bu may gis naa gis naa sëfóor bëgguma ko. waaw xam nga man bu may wax ñu bëgg lu baax ñu bëgg ñu baax laay bëgg a wax. am na yoon nañu nii du ma liggéeyal état yow état ku xam moom yow lu la génn ci état yow nga bokk ci état nii du ma liggéeyal état. loolu loolu loolu ñi koy wax sax ñu man damay jàpp ni ñu xamul li mais état man de su ma sañoon état su ma bëggoon a jël tey ma dem liggéeyal ko ndax ci laay gën a nekk ci condition yu baax ci lañ may fay salaire yu baax waaye dama ni état war naa gestu transport yow bu coow amee ci transport état day am parti bi réellement ñu muy woo. Hmm. day am ñu muy bu ñu woowul ñii wax ak ñee ñee ca des woote geref pëcc xoo gi senegal gii transport yi ñu xamante ci suñu biir yi demalante ak pëcc xoo war na cee mën am. ay kii daa bëgg lii suba loolu maam nit xam nga wax nga ci vers balaa yi man waxuma ngir kedd man transport laay wax vers balaa yoo tataayoo taximaanoo yëpp. man ñoom laa yemale ci man. non si condition chauffeur. waa maa ngi ñëw war a jàppee maa ngi ñëw hmm. man personnel ci ci liggéey Verbaland laa gisee liggéey bu compliqué maanaam hmm. liggéey boobu nag nii projet bi muy ñëw hmm. ci dëkk bi xam informel la ñuy wax ne moom lañu def est-ce que xam nga ni Touba amul informel barke Xaadimu Rasuul amul informel ñoom formel Touba moo fi ne am na oto yu bees nag am nañ lii ñu bees am na transport bees mais formel amul ci dëkk bi. <laughs> dana war du ci tata bi du ci weer balaa bi. te ñoom ñaar la ñu jàppee ci formel. Mm-hmm. yow même dañuy yow nii yow mii xugali ko daan maa nekk ci formel ki nekk informel gën la ay conditions. Mm-hmm. yow nee woo formel. yow informel lu informel gën du formel. dëgg la de yor na wax ne am nañ oto yu bees rek. Mm-hmm. waaw am nañ oto yu bees. mën naa d' accord loolu waaye formel ci dëkk bi moom man d' ko. informel bi moo tane formel bi ci condition safoor fi laay waxee safoor si ñu nekk te ñi ñu woowee informel condition yi ñu nekk moo gën junni yoon ci ñu nekk wax nga ko amuñu douche publique mm-hmm. amuñu ay ay ay mbaar mm-hmm. amuñu amuñu amuñu repos liggéey bu amul repos nag amul taxaw gis naa xam naa taxaw sax dina ci am ndax li may wax loolu maîtrise taxaw sax dina ci am heure pause la rek taxaw rek waaw loolu de loolu sax garaaw ki laay wàññi ko la waaye du pause la loolu muudu loolu sax moom garaaw mais nit ki war nañ koo teg conditions yu baax hmm. état bi nag ñi ngay wax gis nga bu ñuy bu kii lii kii lii maanaam sa force yi ni leen ni ñu war a doxee moo des boo fekkoon ni état régulise transport ba képp comme la ñu am nga oto léegi yow dëkk bi yow ku neex rek transport def def transport. Mm-hmm. ku mu neex def transport. ma gi ku nekkul transporteur amoo jënd camion. gis ko am bitigam yow nga ñoom ñu jënd seen camion yow léegi bagage yi doon yóbbul yow da ngay perte dootoo ko yóbbu. solo ngay transport dëkk bi sëñ kenn xamul lu mu doon. pàccaxoo gi bi dafa am na solo. pàccaxoo gi te yow boo waxee rek ñu am fu ñu la féetale fii la bokk fii la bokk moom amut ñun ñoo bokk liñ bokk ginnaaw yow ñi la jiite ñi nga yaakaar ñoom xam nañ yow li nga doon li bëgg moom allah kuleen lañ koy am état li mu bëgg ci transport bu not wallaay la sim ñi nañ xool rek ba wàcc bii si nga yaa ngi doon wax naa ma garage sax kenn dugguti ci mm. xam nga nee nag état reconnaître na maanaam képp ko nit nga yore alal am nga droit tabax sab garage léegi daal mille bus war naa ñëw de yow yor transport dëkk bii état yow dañ dem rek chauffeur si mën nañu mën fulla kuñ ci woo ci contrat Dakar dem di ko wala Sénégal bul ni du ah, mu liggéeyal état bul ni kenn demal nga liggéeyal Abdoulaye jërëjëf am na solo loolu leeral mais comme émission la jotaay chauffeur la ñun ci chauffeur la ñuy défendre chauffeur dañuy waxtaane yan condition lañ ko war a jàppee ak moom it la war a jàppee boppam ak nañ ko war a liggéey moo tax euh, chauffeur rek la ñuy waxtaanee ñun. xam nga Moodu man damaa d'accord diw Moodu damaa war a respecté man Ablaye sama bopp man mi naan Moodu dama respecté wane ma Moodu ay caractères tax mu di ma respecté. effectivement merci beaucoup. gis nga nit ki daa am ay caractères yu mu war a wane bañ bañ jàppee ko leen li am na chauffeur yoo nit ñi yenn kàddu yi wala yenn yi duñ leen ko def mukk. ndax daa am fu ñu ne. xam li ñu doon xam li ñu yor. chauffeur si yi nekk ci réew mi yëpp bu ñu xëyoon tëdd seen kër. wallaay refi réew mi dina dina nekk ci ci jafe-jafe. kon musiba am. safoor si yëpp nag. kon musiba am. amul kuy daamaa dégg ci kilifa mu ni safoor moom safoor moom ku ko bañ rek daa xamul. ndax mënoo muy président bu laa génn safoor ko yóbbu yow noobul laa wax ci réew mi noobul bu ñu koy wër yow lañ war a jàpp. mais est-ce que ñun xam nañ suñu bopp. waaw effectivement dañoo xamul liñ doon wala ñu ci ëpp nit ki lim doon. yaa suñu borom mën na ci cëralee mu doon ko waaye li tax. ku wax gis jàppee ne kii lii la doon moom moo koy wane hmm. li nga doon nag moom saa borom moo koy def xam ne kii lii la doon hmm. waaye li tax Ablaay ni mu doon muudu xam ko wala muudu may xam ko wala Baye Sall xam ko wala gab xam ko Ablaay moo koy doxee moo koy incarné ko hmm. a kii daa am gat wala non li mu doon la bëgg a wane réew mi nag boo wanee li nga doon ñu ci ñu cëralee ne daa am gat wala daa xamul lu bëri wala daa waane wala kii daa bëri tiitar fekk na li ñu wax amu ci dara lim doon na wala imposé nit ñi arrange wul ñenn ñu di ko xas yow fii yow am na ci oto yi dëkk ñi ba sëfoor yi ñu yor yii ci dëkk bi ku ci am lu ci romb journée quatre-vingt-dix euh, weer quatre-vingt-dix mille transport en commun est-ce am na. Ah. amul kuñ ci fay quatre-vingt-dix mille. tey tey oto bi nga yor tey bu la neex bu subaa boo ñëwee borom ne la bu subaa bul bul xëy si kon conditions yi leen jàppee rek laa njëkk a lu man li ma la wax ci état moo tax. pour musoo gis syndicat waxoon naa ko fi naa ko waxaan musoo gis syndicaliste bu geref lu tax ñu geref conditions yi ñu teg chauffeur si moom met waaye conditions yi ñu teg transporteur yi waaw oto yi nangam oto yi nangam loolu rek ngay dégg chauffeur si duñu xam seen bopp. jërëjëf Abdoulaye gerefu afte yi rek euh, wane na ko. li nga wax ci ci kii sax ndongo faal ay réer la ma def xam nga nit ki su demee ba naan sëfoor si dañoo dañuy sox ay pion bu fekkoon réew mi yoon ngi fi kooku dañ ko waroon a jàpp bu mi yoon a fi kooku dañ ko war a jàpp ndax lim li dafa dafa def danse danse gi mu def mooy dafa jël kuy sox ay pion jox ko oto bu yeb plus de soixante-dix personnes di yeb quatre-vingts personnes di yéegal ak a wàcc di yeb ku ne te oto yi ñu dégg ni ni ñuy dawee ak oto bii daanoon na fii ak accident yi ni mu bëree kooku dañ koo war a woo jàpp ko tej laaj ko nag kanakan la soo ko jàpp ñooñu indi waaye ba mu ko waxee ba xëyee daar ba mu tëddee daal tëdd naa la kenn wax ko dara wax yooyu yow mi yow mi ko wax sax day manqué sa bopp respect rawatina yow nga ne kilifa nga te loo am transport la bul ni ko ci li ci ëpp danaa loo am transport lan la am lu ko transport defulut ay njëkk njaay bu ni mu yoree moom yow ci transport nga ko lu mu am transport la bu ci li am ci ëpp. amul lu ëpp léppam transport ak ko defal. li ci gën a garaaw kay mooy oto bi jël 30 nanga million moom fay ko moo chauffeur bi te ko defal fexe ba mu réussir moom xam nga te chauffeur chauffeur dafa dafa garaaw chauffeur mooy fexe ba nit réussir. day logi fexe ba nit réussir ku ku dem ca banque ba garanti 30 millions 32 millions jënd ko amul kenn ca yaakaar ku dul yow ginnaaw yàlla. Hmm. nga niiral ko ñaar fexe ba atom bi nekk ci ay conditions yu baax. nga fexe ba mu matal waaye fexe ba am na mu yor ci poosam fexe bu subaa bu bëggee dem banque ñu lebal ko. amoo loo koy fayal noonu day léegi pion. day léegi pion wala ay boo munu sa morom man ak. te sama caabi jéeg. yooyu dafa xeebu ci ci ci def sa fóot. waaye seen yaakaar nax na leen ndax li yaakaaroon ne buñ ko jëfandikoo dem di wooy ay alkaati yooyu dina saafara waaye wax na xàtt ñoom. xam nga li ma la wax sa wax ji daf koy firndeel ñoom et buñ sañawoo ay alkaati alkaat yi di ñëw am na lu tax. mooy lan euh, ñii maanaam wax ni dañoo lëkkaloo ngir yàq transport donte ni ñoom nag dañoo mbubboo rek ñu defar transport Sénégal gisuma fi kuréel wala boog bu doon fukki kuréel ñaari kuréel lay def ci transport pour defar ko ñi def ñëpp jëlal na ci ligne bi. bokkoon ci waaw maaleykum salaam. ku baax ki tur ak sant yeeg fooy wootee. Bas borom daaru di wootee Mbacke Bol. Bas borom daaru ñu lay ziar di la bëggee. waaw ñu ngi leen de. ñu lay bu baax di am kontaan bi. alhamdulilah. waaw di nuyu sama am na solo trop. Mhm, mhm. mu rawandi ci bi ñu war jox sa wóor. Mhm. ak yi nga xam ne koy defaat bu baax daal. ñu ngi lay jaajëfal waaw di wax ne nag transport moom ñaar ñu ko seq te war koo defar ñoom ñaar ñëpp kenn ku ne dafa dafa euh, prégul pour transport defar mu ñooñ transport ñooñ transport na bu ñu koy wax chauffeur bi ci la chef de garage ci la ndax chef de garage ci chauffeur bi la bokk ba ñu tànn ko ne ko yaa ngi jiite ñëw ci di état bi mu ñi nga xam ne nii ñooy ñoo yore contrôler ustière yi nga xam ne nii moo am ci kaw tali bi mm. ak service de mille ak ñeneen ñax tey oto bi nga xam ne ne 19 places la war a jël. Hmm. mu ñëw ñi muté ko 19 places. Hmm. chauffeur bi xam ne nekk ci carte grise bi. Hmm. taxaw ci garage bi yàpp benn jigéen ñëw yor ñaari xele. pour ñaari client yi ko wóofal xele yooyu. tey su oto bi demoon ba am def bu ñu calcul personnes yi te du ñu calcul xele bi dañ koy calculaale. bu ko defee naan oto bi li mu yeboon ëpp na 10 personnes. fekk ñun toog ci biir def ciy suyee. maanaam ki lu wóob dañoo dañ ko war a séparer ñu xam ne nit bu xasee dem ba mën a dox te dëgër am 5 ans kooku bu dugg transport war a jël place. day mm-hmm. laaj su jëlul place suñ ko tollee pare su accident amatee bu mu ñu ni limaal ne oto bi daal ci nombre. Mm-hmm. des fois nga dégg ñu ne la oto bi daa yaboo 70 la jëloon. Mm-hmm. mais passagers yi ñu wuufoon dañ naa ko loolu daf ciy joué. beneen chose bi nga xam ne mooy tege. nit li nga tànn ba dem def ko muy sa métier muy sa métier bi nga jàng ba man ko. Mm-hmm. da nga koo war a da ko war a da war a jox respect. Mm-hmm. jox respect nag bu weesuwul tey nga yor oto moo xam jiw nga yor moo xam kaar nga yor. Mm-hmm. kenn oto bi nga war a dawal. mais oto soo ko yoree jóg dawal dem ba romb maîtrise bi war dawal oto bi yow mu leer na dafa am oto boo bëgg a wala am na ñu nekk oto bi dawal dawal yi woo xam ne ni bëgg nga ñu teg la foo xam ne nii xam nga li may wax. diw champion la diw nangam nangam yooyu yëpp nga toogaale ko fi nga toog. loolu chauffeur responsabilité def noonu. chauffeur responsabilité saa yu jógee nombre bu mu yàpp dafa war a fexe nu mu ko wàccee. dëgg man xam naa mooy ndam xam naa chauffeur yi bu baax chauffeur yi mën a dawal xam naa ne. Mm. bépp bu ci toog ci oto yàpp nombre bu la yàlla dimbalee da nga ko wàccee. su fekkee da dawale sa xel dawale sa pratiquement li nga jàng. Mm-hmm. jëye nag mënta ñaaku ci oto oto bi nga xam ne day daw ba mu yàgg mu ak mu am jëye boo xam ne nii chauffeur bi provoqué wul loolu. Mm. bari yoo xam ne nii yu bare bari comme chauffeur bu xëyee otom war naa xool ay gusoom teerewaat ko tey man ci gaar si def am solo ngay dépendre cardan wala yu mel noonu dafa de gaar day wax booy demal changé ko suñ ko changé ba pare war ngaa ñëwaat xool boulon yi jàppale wala affaire yooyu hmm. wala chef de war naa duggaat xool loolu te léegi gis sóor bu dem ci garage dépanne ba pare ñu monteel ko pono ni ñu ko monté baaxut day ñëw rek taal dem teg gone yi ko doon monté ci garage bi téerewul guson yi ba mu dëgër hmm. ku génn fii jël nombre jóg dox pono bi rocceeku hmm. loolu chef de garage ba ko def am na ci part de responsabilité bu rëy. Mhm. dama nga taxawal benn forum boo xam ne nii. dama ci invité woon chef de garage mécanicien yeeg ñëpp pour bëggoon xam ne chauffeur ak mécanicien ba am lu ñu féq. ma lay wax moom xam na ko. ñëwoon na ci ak mécanicien dafa am lu mhm. mhm. ak ñi nga xam ne ñoo yëngu ñëpp kenn ko dafa am lu ñu féq ak chauffeur bi. ñooñu nag ñëpp kenn ko am na responsabilité. oh lu am solo lay wax. waaye bas borom daaru ñu ngi lay bëgg waaye borom daaru borom daaru ahlu transport bàyyi na la xel kontaan nañ ci yow macha allah bas borom daaru Mbàkke ñu ngi lay béggee bu baax a baax ku kuy teewlu rajo bi la te di bàyyi xel émission bi. Mm. xam nga tout le temps rek euh, ni nga koy waxee euh, booy développé ñi lay déglu mën naa ne la ñu si ëpp ñoo lay ëpp xam-xam. moo tax loo ciy wax rek waxal fa nga ak fa ci toll. Mm. mën naa la ñiy déglu. ak ñuy woote wut ñuy déglu mën nañ leen ëpp xel ëpp leen ci xam-xam fopp ci li wax ku ci mel ni bas borom daaru mii ñu ngi ko koy nangul ndax li wax dafa am solo du mat a bàyyi xel la. parce que chef de gare normalement comme oto bu doon dépanné chauffeur bi njëkk moo ci war a bàyyilu xel dem na war a làmb goson yi nga xam ne dindi woon na pneu bi apprenti bi doon ko sukkee di ko xool mu dem xool ko ndax dëgër na wala dëgërut chef de gare bi war naa bu jëlu tànkam mu am kum ca yónni ndax xam na oto ak nu mu bindoo ginnaaw bi ñu ko jiitalee mu doon sauvegarde ndax chauffeur la woon wala apprenti la woon jóge fa dem chauffeur xam na goson bu dëgër ak bu dagg ak bu waajee dagg ak bu deseere war na ko mën a xoolal boppam war mu am ñu ko nekkat ci tuusi ñu topp ci moom ainsi de suite ñu koy xoolal oto bi ñu doon dépanné ginnaaw bi mu taxee ci piste waraw yëpp nombre génn dem yóbbu ji ko lu am solo nga développé fii Bass Borom Daaru ñu ngi lay bëggee di la kontaane di la jaajëfal di rafetlu sa xam xam naa danañ la jël incha allah ñu toog fii faram-fàcce ndax xam-xam lañ ci soxla pour doolee ko ñun ñëpp ay safar lañ te lu ñuy moytuloo musibam tali mi rek soxla nañ la fii am ci sa xam di ci siyaare nag di ci profité di siyaare Serigne Khadim Niang bëgg jàmm safaru biis Khadim Niang maa ngi koy nuyu di jaar di jaar waa gaara su Mbàkke gi yëpp Baye Sall ñii ñëpp ñu ngi leen di siyaare waaw wax na lu solo borom daaru ba pare yëmul ci wax ndax daa jëf di nga mën a defar na benn forom boobu nii. chauffeur mhm. sa ak mécanicien yi ci la ci boole. Mhm. xam nga kon kooku am na lu muy liggéey ci transport. Mhm. saar yi saar yu mel nii dañ leen war a am am am bu ñu leen war a jox. am am uh, cër leen war a jox waaye di leen jàppale ndax bu fekkoon defoon na benn forom buñ ko jàppalee dëgg-dëgg mu médiatiser ko ba ñi ba ñëwul woon sax xam ko. su boobaa dana dana dana dana gën a mën a tax mu am respe wala mu gën a amaat confiance ci li muy li muy taxawal euh, bi ci res mooy fi ma doon waxee muy li mu wax muy chef de garage yi xam nga nit ki booy wax bul bu fekkee ne da ngay di scénarise rek di boole ñëpp da ngay juum waaye li li ëpp ci ci chef de garage yi li ci ëpp euh, li ñu ëpp di contrôler mooy morodaas hmm. li ñu ëpp di contrôler mooy moradas duñu xool euh, setu garage bi ñi ci ëpp laa wax hmm. du ñu xool éclairage bi maanaam làmp yi éclairage ñu xool euh, maanaam éducation yi yi ndaw ñi ci nekkee du ñu xool leneen ak leneen ak leneen hmm. kon am na ci ñoom nit nii ñoom wax naa ko samay biir wax dinaa ko waxaat doxuñu ngir transport avancé dañoo dox ngir ñoom seen biir ñu avancé hmm. mbir nag bu ñu la jiitalee nga bëgg a jiital sa bopp soo ko jiital li ñu la jiital da ngay fakkastalu mm. bu bu nit ñi bàyyee li ñu li ñu moom lépp boole ko dénk la ko yow da ngay sa bopp nekk ci liñ la dénk ba mu jub. Mm. dëgg mm. waaye ñu boole lépp dénk la ko nga bëgg cee profité ngir yow sa mbir sa mbir. jàkk ak ñi la topp jàkk ñi la loolu moo yàq même pas transport kese waaye moo yàq réew kon ki ñu jiital li lay war a suuli na fàtte boppam xam ni moom doonatul doonatul Ablaye Ka kese Ablaye Ka daa am lu tegu ci kawam dafay doxaaleeg loolu maam yow booy dox xott yow la kese waaye buñ jëlee nag ab saag bu diis takk la ko sa ginnaaw daa am nooy doxee jërëjëf Abdoulahi am na solo bas borom daaru ñu ngi lay bége di ziarewaat waa su Mbàkke yëpp bu Saalum ak bu gaarasu Dakar personnel baak yëpp di ci jiital seen président président Mamour Jëm di ko ziar di ko ñaanal jàmm ak tawfeex ak waa staff bi mu àndal ci liggéey boobu yëpp di ziare waat euh, waa RMT les républicains marginalisés de Touba euh, le coordinateur lañ si jël Abdoul Aziz Loum suñ ko waxee rek yóbbaale na membre yëpp ak sunu yaa ndey Ndeye Gadiaga responsable politique APR di ko nuyu di ko ziar di ñaanal sunu baay ji sama borom defal ko tawféex baay baar gajaga di siyaarewaat sama waa kër yëpp di fa nuyu sunu yaay booy di ko ñaanal gudd fan gu ànd ak wér gu yaay gars yi famille yi boobu ñu kenn ñu ngi leen di nuyu di leen ziar Abdoulaye ba tey dañuy resté ci transport surtout urbain bi nga xam ne ci nga nekk ci biir dëkk bi di oto yooyu nga ne damay dégg ñu ne oto yi. tey boo wàccee ba verse am na mille francs yi nga xam ne ñu ngi koy génne di ko verser foo xam ne nii binduñu ko fenn ma ne ci receveur si la jëm wala receveur si wala responsable wala. laaj laaj nga ma lu ma sawar. 1000 xam naa ni su ma la ko expliqué du 1000 francs sax 1500 la. su ma la expliqué. Mm-hmm. yow di nga xam wala ñu ngi dégg di nga xam. 1000 mm-hmm. francs yi dagguñu ko chauffeur bi. ñoom ñoo moom seenub xaalis jox ñu machine ñu di leen liggéeyal ko yor tata xam na ni boo liggéeyee ba mu naaj di nga jox régulateur bi mille cinq cent ci la bi ak régulateur bi yooyu ñuy wax ci la ñu fayee contrôle ak régulateur leer na maanaam mille cinq yow boo waroon versé trente trois mille pour mu leer yow yaa moom trois mille 30 mille yi ngeen war a versé da nga koy da koy xaaj ñaari yoon xaaj bi nga koy xaaj mooy dama leen di jox 1500 yi ba pare soog leen a jox des ci versement bi kon 1500 yi ñuy wax wala 1000 francs yi dañoo xamul ñun nag bu xamul dara sañ naa laaj. waaw. léegi 33 mille 3 mille yooyu ngay jël moom mooy salaire u bi. déedéet loolu prime de chauffeur la. prime de chauffeur mooy. maanaam li mu li mu am. maanaam cinq mille cinq cent bu ne da nga ciy am chantage cinq cent. Hmm, maanaam buuñaa daal. waaw buuñaa loolu lay neexale même loolu bokk laaluwul dara. ci géewaaniwul sa sa leer. maanaam loolu de mooy xanaa chauffeur bi ak sa leereel sa bopp pour mën a diju ba temps bi nga xam ne moom waroon nga ko mën a wàcc comme ñu ne la huit la nga jéem a yokk trente minutes wala vingt et une pour mën a am trois mille yooyu mu ñëw ci sa gafa ga weer balaay bu ci réew mi une heure bu dee am na lu bëriwul. Hmm. oto yëpp vingt heures vingt la ñu wàcc. dañuy ñëw ba vingt laay wax. weddiwu ma dama ne la bu dee am na it bëriwul. Hmm. xam bi nga xam ne nii. mën ngaa bu weer su bay ñibbi. waaw moom. xam nga chauffeur bi nga xam ne nii vingt maanaam trente trois mille. waaw trois mille ya ñu ne la yow trois mille yi jël ko nga boo ñaawoo ko. waaw mu féete ci yow. waaw loolu kay mooy accélérer chauffeur bi. waaw loolu. loolu loolu naa jéem a fexe 33 moom bu yokkute du wàññeeku ngir may am luy dugg sama gafakat bokkut ak sabab sale loolu accélérer chauffeur la. waaw dinaa la nangu loolu ndax su ma la ko nanguwul rek naa féq la waaye dinaa la leeral ni la maanaam kuñ ci accélérer loo yaa bëgg accélérer sa bopp ndax yow boo fekkee ne aw 3000 moo tax nga bëgg accélérer sa bopp. ak wala def loo wër te def yow xamoo sa bopp bu ñee la woon sax boo amoon nangam amub junni te junni bi di xaalis bu jëm ci yow dangaa am lu ëpp junni fexeel ba sàmm ko muy sa dignité liggéeyee li nga war a liggéey boo wàccee li nga war a am nga xam ne loolu nga war a man de seul man noonu laay def. jërëjëf émission man ngir prime wala dara damay daw ngir dama war a maa xii sama heure wàcc bu jotee ma wàcc. lu ma xam ne loolu laa war am. am na solo danañ ci ñëwaat Abdoulaye mbokki auditeur auditrices yi bëgg ànd ak ñun ci émission jotaayu chauffeur da ngay jaar ci 88 628 81 08 88 628 81 08 wala 88 628 19 05 88 628 19 05. Abdoulaye mu mel ni client yi dañuy xewal wala oto ñoo neex wala oto ñoo doyut ci transport Touba wala lu xew ba tax. ñu leen di njëkkanti taxaw di rang di leen xaar. li nga wax mën naa la cee nangul lépp moom des benn. Hmm. muy xewal. xewal gi moom mënuma cee wax. non dañuy xewal ginnaaw dañuy xewal. ah loolu yow. yaa yow yow yaa ngi di ma oto yi dañuy dañuy xewal. xam nga yow loolu yow yaa ko wax. non li ma ko xam naa. waaye li wér tuwér mooy ñoom gis nañ ci lu tax ñu di ko njëkkante. ndax loolu lan lañ ci gis. gis nañ ci oto bu confort. confort mooy lan. oto bu bees. mooy loolu la yàlla dogal nangul rek. oto bi li muy bees bees bees Euh, jamono moo toll fa mu ne nit ki xaaratu yitte yi daf koo jant ba lu koy tardeel daf koy daf koy moytu te oto yi wax dëgg yàlla képp comme nit ñi yàkkamti nga moom yàlla dogal na ne boo ci yéegee mën ngaa bañ a tardé loolu it mën na cee bokk bi ci des mooy oto yi xaaju ñoo doy ci biir dëkk bi dañoo xaaju doy ci biir dëkk bi ndax ñi ko amagut ñu ngi jooti ni dañoo war a am ñi ko amit ñi ngi xeeb li ñu am kon doy amu ci loo am dañu ne ki ko amagul mi ngi koy bëgg am waaye ki ko amit mi ngi xaar koy dolli mënoo ni dafa doy te yaakaar naa ne mënuñoo indi lu fi doy. pourtant dama déggoon ne da ngeen wàcc suuf de damay gis ngeen wàcc suuf. da ngeen wàcc suuf dëkk bi sax da ngeen def. loolu. loolu loolu loolu koy def wàcc urbain bi. xam nga loolu man am yoon ni demee noonu man ab du ma ci dugg du ma ci sori. danañu wàcc suuf. di taxi di taxi loolu ñoom ñoom ñoom ay responsable nañ ñoom ñoo ne woon nañ ko def suñu gisee ko def luñ ko teg ñoom la lii maa ko indi kenn du kenn du suuf si. kon su jàpp nga ne chauffeur si koy defal seen engagement bopp. ah man loolu laa jàpp bindu ginnaaw yoon nee nga dañ. ñëwaat ñëwaat nga ci cadre li ma la waxoon ne la ñun nañ respecté suñu bopp réglé suñu bopp ba pare doora lijjanti ko nga xam ne moo ñu war a réglé. li nga ma koy wax laa la koy ni la man li ma doon saa def na ma ko waaye li tax muudu xam li ma doon man maa koy wan bul wàcce suuf soo wàccee suuf yow yaa tooñ damaa gis ñoom ñi la wax ne dañu wàcc suuf damaa gis ñu bindaat fenn ni bu leen neexee di wàcc suuf si ba loolu laa jàpp waaye dëkk bi dëkk bi yaat na yaatu gom nii boo ne oto yi duñ daw ci suuf dina bëri ñu dul am te dëkk bi moom bu doon fukki tëli la juróom-ñetti tëli yëpp daanaka ci suuf la nekk doxatul baaxatul. dégg naa nag nu leen neex ngeen koy dawale de. xam nga dawalin bi moom. ngeen di jaay ne am ngeen këyit da ngeen di jaay ne favoriser nañ leen da ngeen jaay ne am ay ponkal yu nekk seen ginnaaw ba ñi nga xam ne oto yi ngeen fi fekkoon ak sareet yi nu leen neex ngeen leen di dawale. man nu leen neex coupé da nga gis ku cëppeelu sax bëgg a doublé sareet di ñëw. mu cëppeeluwaat ci beneen côté bi jàkkaroog saret boobu jóge woon marché ba mu jàll wala oto mu door a yéegaat loolu ban façon dawaleen la jaay doole la wala yaakaar nga ne ponkal mi nekk sa ginnaaw war na laa mën a régler. man de ngeen ni kii moo tax ngeen di ko def. ñett yi nga wax man man jàpp naa ne du ci benn. du ci ah, dugg naa ko de. da nga maa laaj. la bu dee ay këyit la ki nga jaay këyit am na këyit kom yow. Hmm. bu dee ay këyit la yow ki la wuti këyit sax mën laa gën a bu ngeen desul lu xew kii bu yàggee yow doo ci doon dara yow da ngay taxaw ne dañ lay lijjanti. dooley jàmbur nag ku ci xeex ak ñàkk fayda laa ko teg. am na jëlee moom. dooley jàmbur. Mm-hmm. képp ku koy xeexee wala di ko doxee ak ñàkk fayda laa mm-hmm. man li ma gisee li nga wax. li mm-hmm. ma gisee ci ñaar laa ko jàppee. ñàkk xam li nga doon ak ñàkk xam li nga yor waaye ku xam li nga doon doo dublee sax droite waaw doo doublé doo doublé sax droite. waxuma laag nag ngay cëppeelu yooyu. loolu manquement de formation la yaakaar waaw xam nga bi dafa des parce que li olof yi naan ku sa xaju bàyyi jur kutu amul ci oto. ah na non non non d'accord non est-ce que def nañ formation man ah, oto yi dafa ah, ah, ci formation. dafa war formation nag. man xam nga li nga wax naa la nee naa la formel nee naa amul ci dëkk bi. man ci personnel la kon kon loolu ñuy incarné nag di ko jéem a indi ci oto di ko gëmloo nit ñi nañ war a teggi. nee naa la yow sa biir wax nee naa la yow laa jiw man maa ne la dëkk bi coowul formel am na fi te formel amul fi fii dara formelu moo ngi fi ne wala rek. daanaka da nga foofu bagage lañ amul rek. oto non oto am na am na ci ay yenn qualité yom di nii oto yee boo xëccee ci wàllu formel mën naa formel foofu mais comme ça oto bi bu dee li tax ñu naan formel oto bi nekk ci condition yu baax. ki ko yore nekk ci condition yu baax jàpp naa loolu mooy formel mhm. li fi woon ñu jëlee ko fi mhm. indi fi leneen lu gën a piir loolu lu gën a baax loolu mhm. loolu nag bu fekkoon fukk la oto bi ñaara ci am mbokki auditeurs yi di woote ci téléphone yi mu bëgg ànd ak ñun ci émission jotaayu chauffeur da ngay jaar ci 88 628 81 08 ki nekk si plateau du mën di wuy téléphone boo bëggee ànd ak ñun ci jotaayu chauffeur da ngay jaar si 88 628 81 08 ay Iba. maa ngi siyaare yooyu yëpp ay chauffeur vert blanc yi ñi ñi ñi ñiy ñoom ñëpp waaw dañuy jaar ci plateau bi. Bas moo gën Bas gaa maa ngi leen di siyaare Bas ak ñëpp rek ak Bada Thiam maa ngi siyaare sama gaa yëpp. wax dëgg yàlla de ñu ko clamé di ko réclamé client yi bari na neeñ daal fi mu nii liñ séentu woon ci oto yi ak liñ ci gis am na ak wuute. ndax liñ leen di njëkkante la walla liñ leen xaar la. wala lan la. ci lu mel lan. lépp rek comme li nga wax nii. xam nga nit ki bu fekkee da nga koy xaar bu fekk man damaa jàpp nit ki boo koy xaar ci dara gisoo ko ci. war nga ne ko doon naa la xaar ci nangam gisuma la ci loolu. waaye liñ doon xaar ci ci gisuñu ko ci man mënuma ma tontu. mooy bu ñëwee dañ fay fekkoon oto bu amee emprunté di dawalee comme nu mu leen neexee di jëf-jëf yu leen neex loolal dañ doon xaar bu ngeen ñëwee yi nga xam ne dañ leen a réglementé. loola mën na deñ wala mu génn fi wala mu wàññi ko mais dañuy gis loolu continuer ba léegi. te génn ko non boobu moo ko laaj. xam lu tax man la bu ma ko laaj. Hmm. lu ngay wax lu formel lay doon. Hmm. lu formel ngay wax. Hmm. lu formel ngay wax. nangul naa la ko man man nee naa la du formel. ñu nekkoon fee ñu moomoon oto yee ñi ci ëpp ñoo jënd ci oto yi ñu nekkoon ci seen oto yi la ñu indi ci oto yi mais ay safoor yu yu yu yu respecté seen bopp ci. yu xam li ñuy def te mën a dawal xam nga da ngay dégg ñu naan mm. gerte gu nekk mënta waaw guro gu nekk mënta ñàkk sàngar moom sàngar waaw sàngar bu am 136 safoor ñëpp mënu mënu leen assuré ci ñu jàkk mm-hmm. man dama ne dinaa leen remercier ci benn côté vert blanc yi ñi fi indi projet bi dinaa leen remercier ci benn côté ñu laaj ma lu tax ma ni bëri bëri na bu leen remercier suñu plateau bi non man non déet dinaa dinaa leen rek. non non bu la remercié plateau ma invité ñoom. non non bu la seen plateau nga ma invité di ma laaj ci ñoom may wax ci ñoom. Mm. su ma leen waree sant it fi ma déggee wax ci ñoom fi laa leen di sant. Mm. waaye mm. mun maa wax ci ñoom lii bëgg leen sant nga nga ne ma doo leen sant kon yow daa mel da leen a contre. non contre ma leen. Ah. ak ñoom tax ma di leen sant mooy fexe nañ ba créer emploi. fexe nañ ba créer loolu. ndax nag bu ñu waxantee dëgg cent cent trente six chauffeurs jël ay contrôle jël ay ay ay ay régulateur te ñooñu di ay ndaw waroon a wuti liggéey feneen nga fexe ba ñu nekk ci ay liggéey donte nii li ñu leen di fay bu leen satisfaire it am na lu mu leen mënal hmm. waaw am na lu mu leen mënal kon loolu dañ leen ci sant. mais beneen bëri na bëri na ñu dawul ñoo xam ne ci yoroon nañ kaw dawaluñu am nañu am nañu nekk seen kaw de indi projet bu gën a garaaw bi ngeen yor projet boobu boobu mooy gën a efficace projet boobu projet boobu dégg naa ko waaye man def naa ci ay jàngat lu tolloo ñaari fan ba ñett waaye daf ma am lu ma ci jaaxal lu ma ci tënk hmm. muy dañuy daw Mbacke ak Touba wala Touba kese la ñuy daw. wala département bi la concerné. non non. garas yëpp ci biir Touba dañ ci ku ci bëgg dañ ci am. ah Moodu Moodu Moodu oto yi mënta département bi. ah lu tax. waaw kay. bisimilah yow proche bu day nii oto yu rafetee nii. Hmm. ni vert blanc yi fi daw nga gis ko mu leer naa ñu bind la ñu bind projet bi xaatim ko ba mu leer ci président bi fi nekkoon nga am 40 oto yu foro daw 40 oto. Touba ak Mbacke xajaloo gi ci transport pour lan la. Hmm. léegi ñoo taxawat nga nga yow kilifa gi nga rek fas oto yi duñ fi daw. wax invité nga ko ci plateau bi. Hmm. Hmm. mu wax ay ay ay ay wax yoo xam ne nii ça veut dire bi ma man moom bi programme ñëwee bi ma liiree fooyee man damaa rus. man damaa rus oto bi 8 million nga koy jëndee wala 9 millions. yenn yenn te oto yi verbalaa yi ñuy indi. déet bul bul yokk. non mais waaw la ñu yor. mais du 8 millions. la. 7 7 millions poussière la. est ce que est ce que calculé na li ñu ci def lépp. ci foo yi li ñu wax ne loolu lép bu ñu la ko daggee. Euh, non man calculé. oto bi lépp boo calculé. 13 millions la lay dikkee mais moo gën a mooy seer seen. non non jamais oto yëpp boo calculé 13 millions la lay dikkee. non non. yàlla yow kon kon. yow liiroo ko bëgg koo ween. liir damaa yor feuille liir naa ko bu baax waaw yor naa ko loo wax léegi ba pare mooy ñoom dañoo bañoon loolu est-ce que kilifa yi yi dëkk bi dañ nangu loolu. dañ nangu ah. oto yi di di jé ginnaaw ñoom nanguñu woon oto yi jéggi rompoye Mbàkke bi dugg biir Mbàkke. est-ce que dañ nangu oto yi jéggi Mbàkke dugg biir Touba. loolu xëy na ñoom ñi nga xam ne ñoo ko. tey nag nag bu ñu waxante dëgg waxante dëgg bu dee transport transport verbal yooyu. nga yox projet boobu di waaj a ñëw te ñu yàgg ñu ko wax te gisaguñ ko suñ ñëwee bu dee Mbàkke kese la ñu daw képp ku ci def sa xaalis di nga jooy Abdoulaye jërëjëf am na solo macha allah leer na mbokki auditeurs yi nga xam ne bëgg nañoo jot ci émission bi jot ay sifar da ngay jaar ci 88 628 81 08 xëy na du ñàkk ne ñoom ñi nga xam ne ay kilifa lañ te xam nañ fi war a jaar danañ fa war a mën a jaar ba xam fi ñu jaar mbokkañ ci ligne bi bëgg a ànd ñun ci émission jot ay sifar asalaamualeykum. maaleykum salaam. Baay Waal ñoo ngi ziar. Baye Cheikh Gaye Rijaal bëgg. bëgg Fall maa ngi lay ziar. ñu ngi lay ziar ak ñu ziaree jooju jataay bi. macha allah koy bëggee de. Mm-hmm. Eh, ñun nag ñu ci gën a ñor daal mooy. Mm. ku man di indi projet ku mu mën a doon. Mm. nanu jàppale ci fu mu xiiree ñu yokk paas. Mm. nu nu jàpp la ci fu juróom benn nit dajaloo raj rajloo daw wuti oto ñu yokk paas mm-hmm. nañ ñu jàpp la ci bu événement ñëwee ñu yokk paas mm-hmm. lu war a mat ñaar fukki fan fukki fan ak juróom sax dinañ ko yokk après événement yokk ko avant événement cinq jours wala sept jours mm-hmm. dëgg daal métti nañu lool te yokk gi daa métti lool wallahi wallahi di def deux cent ba noppi yam corniche. ah doy na waar. boo jógee corniche jàll okas deux cent muy quatre cent franc boo ko defee aller retour ci jamono ji naqar ji. Hmm. mu leer na na yow kenn ku nekk la nga daan dépensé mënatoo koo am fenn. boole ko nga daan paas deux cent dem dikk nga fay euh, quatre cent dem ak dikk loolu rafetul. wallahi lenn jullit waru koo teg moromam. wallaay loola nag day jar nag ñu andi fi ñooñ dañ leen di teg wéer a wéer hmm. man nangu naa lu demee nekk bisub it nga bañ a tëbaskee sa kër tëbaskee ci tali bi nga yokk fukki dërëm baax na. Hmm. ndax loola nga cee am. Hmm. nangu naa itam essence bi seer na événement bi tax na oto bi day ralentir ndànk ak a tegg ci nawet bi fu ne nga yokk. waaye foo taxaw yëpp doo des ñaari minute juróom minute egg fa nga daan egg yoon wi neex foo taxaw ku wàcc keneen yéeg nga boole kooku yokk ngir nit ñi bari na ñaaw na lool. jërëjëf boppam. <laughs> jërëjëf Baye Cheikh Gaye Ridial Fall ñu lay jaare di ñaanal jàmm gis nga taw bi man gis naa oto dama ruus bu taxaw ab oto di taxaw di yebe fooy wàcc 300 ci dëkk bii man gis naa ko te garage bi amee kooku responsable la te foo dégg fu mu waxee danaan la dama bëgg transport jag doon naa la ko wax léegi ni taximaan yi ak Mbàkke Tuubaa yi. maanaam da ngay ràññatle séparé ndax ñi lay. di oto gab garage gab bi jëm olom ga taxaw naa fa ça veut dire que la vingt mooy bi mu tawee alxames. 19 hmm. heures 15 minutes oto bi trois te client yi daw yéeg mën leen fooy wàcc 300. man maa ko gis maa ko fekk. ci garage bi wala ci daa ñëw. tournée si bi garage su fi ñu taxaw piste bi ñu taxawee di yem. Renault bi dégg. bi. Mm-hmm. daf ni ko amul 300 bu lii yëpp. waaye wàcc 300. Mm-hmm. pourtant biir balaa yi liñ ñu leen di wax lépp du dara doxee ba ñu yokk. nit ñi ngoo ñeme yokk. ah kon léegi mooy li ma a wax rek tata yi du ñu yokk. waaye mm-hmm. léegi kon ah, li Baye Cheikh wax lu am solo bu xiinee nga yokk maanaam muudi mi dong bu doon xewle waa réew war caa wuy ji nga yokk. man euh, bisum xasida yi gis naa tamit ay 200 300 lañ doon yebee kon tarif yi ci dëkk bi dañu war a njëkk a xoolaat. non jërëjëf laay foofu fi mu la si daggee di dugg si mooy secteur transport ci dëkk bi moo réglementé wul parce que ñi ko war a réglementé li ngay wax rek ku ci nekk sa bopp ngay lijjanti noo réglé sa bopp mais lijjanti wa transport bi. xam nga ndox dajee bari maa ngi ñëw parce que fu ma ko mën a jàppe ñaar dina yàqal président. garas booba même bu ko yàqul dina ko xajamal nekkinam nga mu nekkee foofu ba ci topp mooy ñi ñaari xeex da jaam loolu ñuy wax bataille psychologique parce que mu ngi sóoraale ne yéen bu tawee ñaare du ngeen mën di dox yenn yi ni ngeen ko daan doxee client yi daan dugg si yéen dana ñëw di leen koñe ndax daawuñ dugg si ci ñoom mais benn bu bu ji baax amu ci ndax wur te koñe client bi nga gisut oto ba mu daan dugg te it wuru ko def te it ma nga yàqal boppam di yàqalaale ka jiite garage booba ndax lu ñu wax comme ni nga ko waxee nii ni nga koy nettalee keneen koo ko dégg noonu du lu rafet te it koo koy def bu yeboo nga boo ko xam ne jëkkut te jaaduwut léegi ci problème mu oto kilifa yi nga xam ne xamal nañ te seen biir ñun ay emploi lañ war a doog ay soq lañ ñu topp ci ñoom danañ xam niñ ko war a mën a régler parce que dana li ma dégg ci projet bi ni mu ko waxee département bi la concerné la wax bàyyiwul fii ba belal garas bu mu mën a doon waxtaan naag ñu war a waxtaanal. non attends xam nga yow boo bëggee tëgg ne bu ñëwee bu ko bëggee dawal Mbàkke rek man jàpp mu ne Mbàkke rek la koy dawal parce que bu nee projet bi ñetti façon oto la. 11 places 14 places 8 places interurbain am na si ne département bi la loo ko contre contre war nga ko may président départemental bi ci administration laa wax de waxuma pour wàllum vote vote beneen la. vote mi ngi doon nga am carte membre bokk ci garage bi war a mën a voté. mais bu dee départemental ci administration boo ko nii. muuru muuru ci la war a man a ne wala nanguloo ko loolu yow. waaw dama ko nangul xam tax yow nanguwoo man ma ma voté. Mm. fi ma fi ma bokk. xanaa mm. xamoo mm. man ku képp ku nekk ci département Mbacké bi tey transport yore carte war a yore carte membre boobu carte membre sa boobu garage boobu ndax ndax. maanaam. ana foo ko teg waaw kay ndax ñii ni kii moo leen yilif. kenn département bi moo leen yilif ce que chauffeur bi bëgg carte def na jéego yu ko war a mën a may mu am carte boobee pour bokk ca garage. est-ce que yombalal nañ ko ko ba mu amul fitu dem pour pour pour pour carte. am na lu ma ci xam lu wax de ma man ma nag. lu mu ci wax nee na ku ñëw mu jaay la tijjil na ñëpp ay buntam. non daf ko yéex a tijji. déet. oui. non non daf ko daaw la nit ñi ca. déedéet non non déglul nañu waxante dëgg te yàlla tax. bisimilah. bañ ne nañu wote départemental ci li ma yaakaar mu ni ku nangoo man jàpp naa ne ku nangoo wote national. xam nga ne woon naa la fii ci plateau bi wote national ñoo yàq garage. tey laa ko gën a mën a wax. bu ñu fexee ba kenn ku nekk te dana gis ku nekk ci région ñi ëpp ci transport région boobu du tuddante ak ñoom du jubante ñoom. di wax ak nag keneen ko maanaam nga nga bàyyi foofu de naan damaa bëgg defar transport Sénégal. te xamoo la xew ca gaaraas boobu. yaa ngi dégg. Hmm. maanaam ma ma gis ni ku ku mënta ku mënta tabax pantre hmm. ak pantre ku ko mënta tabax daan damaa bëgg muudu mi kat këram ak kër Abdoulaye ak kër Ibrahima ak kër Fallou ma boole leen miire leen kii mu nekk génn këram. loolu boo ko waxee muudoog Abdoulaye bu bu nekkee ay nit war nañoo xam ne mënoo ko. est-ce que dégg nga bala ñëw lijjanti national nañu lijjanti départemental suñ paree ci départemental kenn ku nekk lijjanti département yi départemental rek dajaloo defar transport régional régional yi pare kenn ku nekk nag boo paree pour defar national bi day yomb. jaxase leen indi foofu rek waaye du lu ñuy du du ak bëgg du leneen. ah jaxase ak waane. waa léegi nag jaxase ak waane moom jépp ko ci topp. ndax man benn ci man bi ma demee woon Tëngéej vote yi. garage ba ba suñu jonee yàlla tey laa fa te tegaat sama tànk. carte ba anaw. xaw ma sax fu ma. yow jëndoo carte dañ laa may carte. damaa jënd. jëndoo. amul ku jënd déglul amul ku jënd. bokk na ci déglul muudu. bul bul wax jooju. non ñu voté non boo voté. dañ laa jëndal carte jox la. bi dama ko jënd nañu bàyyi nañu bàyyi garage yi ñuy xeexee man jóge Touba dem ba Tëngéej di wateel kenn te man xawma kooku lu ma jëriñ. xamu nu garage bi doxee ngay wax. xamu nu waaw xamu nu ga waaw garage bi xamu nu muy doxee. xamu lu fa nekk xamu ki ki ma bëgg a fal manal la waa garage ba dara war a déet. buñ looloo rek bokk nga ci àtte ba dem. way nañu am ful la. waxoon naa ko fii budul benn budul ñaar bu ñu syndicalisé xeexloo ci suñu biir kenn ku nekk fi nga dëkk booy wate waru départ région bi nga nekk war nga d' naa man ma dëkk Touba war naa mën am carte régionale carte Diourbel ndax Diourbel moo ma yëlif war na ma am carte départementale bu Mbacké ndax Mbacké moo ma yëlif kii bu dee saa ndey kii di saa baay saa ndey ak saa baay jubawuma ci kenn wala wala ma ànd ak saa baay bàyyi sama ndey li ma bëgg coow lay bëri bëri waaye du sotti. demalante yi ci gaaraas daal buñ ko de buñ ko bawut dara du réglé. waxoon naa ko buy jiitu. li ngay wax ci gaaraas bi nag bu fàtte ne président Medou Ndoye yal ko yàlla jàmmal moo fi nekkoon ci wàllum départemental ak jaayum carte moomee. mbedd ndooy moo yilifoon jaayum carte. muuru muuru. maa ngi ñëw diglul bala ngaa wax. bi dañ ko dékkoon mbedd ndooy ak Mamour Jëmb. waaw ah, moom naa la jiital mbedd ndooy. Hmm. teg Mamour Jëmb ci ginnaaw. ñaa hmm. ngi dégg bi mbedd aj aji yee màkk Mamour Jëmb liggéey fa ay weer. Hmm. waaye liñ leen jiital ñoom ñëpp bi ñu demee bay def ay élection ñoom ñoo toog plateau kenn ku nekk wax li nga man wax li nga bëgg bañ déggoo ci. kon man jàpp naa ni foofu jëratul ñu ci deltu ginnaaw di ci leeral dara ndax loolu paase na te ci des mooy maam Mor jëmb bëgg naa fu mu waxee ni moom mooy président département bu tuu bu Mbàkke man maay kon garage daar mu ni ñooñu maa leen yilif Tuubaa maa leen yilif Tayif maa leen yilif euh, Tiib maa leen yilif waaye gis nga kilifteef boo ko doone da ngay fexe ba jubóog sa njaboot gi yëpp dëgg waaw loolu d'accord naa ko ak baay bàyyi ci kër bàyyi ci kër amul doom ju mu war a sànni wala ju muy boddi mm-hmm. da gis baay bu juree tuxkatu yàmbaa sax lu gàtt-gàtt na koy xëcc di waxtaan ak moom ngir mu ba wala mu toog ak ak njabootam di waxtaan ak ñoom lu tax ñu bennoo wala lu tax ñu mën a jëm ci kanam waaye sama doom jii daal dinaa ko karkaral jii dinaa ko jëla aw yot dóor bàyyi ju koy def boo naan kër gi maa ko yilif yi dang naan am na ñoom nit ñi ñi ci kër gi maa leen yilif am na solo président laay am na solo mais est-ce que doom yi nag ñëpp neex nañoo karkaral. waaw boole leen boole leen ci benn kër pour ñu nekk ndax am na ci doom yi nga xam ne buñ matee ba moo sol seen dàllu baay mu jot leen yaakaar naa dañuy bëgg a génn sanc seenu kër. am na ci ñoo xam ne nii nag dañuy bëgg tëb miir am na ñoo xam ne ci bunt bi leen jaar fa leen jaar loolu duñ ko romb mukk waaye lu mit mit mooy président départemental ndax administration laay wax ak yow. waaw bu dee bu dee wàllu vote nag ak garage moom ku ci nekk ku am carte yow la concerné nga voté ci garage mais départemental bu dee régional Serigne Sall lu cool yi bari bari mooy seen kilifa waaye boo dellusiwaatee da ngaa déglu bu baax ma tënk boo dellusiwaatee ñoom ñëpp idika day daan day ñëwaat seen kilifa ndax moom mooy 14 régions yi. Hmm. moom mooy président national. des regroupements de chauffeurs. am na ñu ko nanguwul. non récépissé sax bu génnee ki ko yor boo nangoo soo contrer soo bañee xam nga président Macky Sall loo bañ bañ bañ bañ moo doon si président. loolu am loolu la yàlla dogal. noonu demee nag fii ak mi nga xam ne nii dénk nañ ko ko jeexut mu joxe ko rek mooy si président kon IDEGA boo nangoo soo bañee récépissé bi moom fii ak date boobu jeexagut rek bañ di mat élection waaye laa ñu seet kuñ ko jox mooy si président yàllaa ko dekkul mais. Ah. noonu la mën a demee. ci am na mi dama ni la léegi kër googu la si nii doom yi buñ jubóowul ak baayam wala bàyyi boobu dama ne wax ci ka ci rul bàyyi laa doon wax ma ni war a woo doom jàpp leen benn nga ne am na doom yëpp la nii dañu man dara pour bëgg a ber seen kër. ñii bëgg a tëb miir ñii bañ a déggal euh, seen seen baay ma ne doom loo am am am am bu la taxee bedd sa baay bis dina ñëw nga soxla sa baay. Mm-hmm. est-ce que doomi léegi bokk nañu. waaw diglu maa ngi ñëw. Mm-hmm. bu fekkee nag sa baay li warloo ak yow def na ko. def na ko bu fekkee sa baay li warloo def na ko te man jàpp naa ne ku sa baay def li warloo ak yow too ko tëb too ko jéggi bay xalaat dem def leneen. dëgg kon li lay war a lii man transport su ma nee transport Sénégal laa bëgg a doxal. wala safari Sénégal laa bëgg a xeexal. jubóobu maa ngi ñu yi ëpp ci département bi. wala yi ëpp ci région bi. di wax ay ay kilifa nii. dëkkuñu ci dëkk bi xamuñu lu xew ci dëkk bi nekkuñu ci région bi moo di fi bàyyi ñi fi ne dem di jubóog ñooñu ak waane ak fi ministre mënta weesu loolu kilifa yi nekk ci région bi nañu toog plateau waxtaan benn doon benn liggéey transport département bi dem ci kanam transport urbain Touba bi dafa paccaxoo de comme ak paccaxoo ba dugg dagg la gis nga waxoon naa ko fii bi bi Pape Seck taxawee toogoon na fii maa ngi koy nuyu gëj naa koo dégg nag sama xarit la lool. du doon jàmbaar te nit ku baax la man xam naa ci dara te xam naa ne am na fu ngi dégg li ci des mooy moom commission transport dëkk bi nañu xool ne ko monsieur le maire bi tegee pour ñëpp mën cee seen bopp. kuréel yi bëri na ci dëkk bi surtout mu yéen yéen da ngeen a bëri ay kuréel. yéen taximaan yi. Mm-hmm. Mm-hmm. jàpp naa ne ngeen ñetti fédération. waaw ñetti benn bi Matar a ko jiite. Mm-hmm. benn bi Pape Seck benn bi Pape Ndaw te yéen ñëpp ngeen bëgg a doon benn bëgg a defar transport mm. loolu bu ngeen ko waxee mm. dangeen ngeen ndax seen bopp ndax ñi ngeen jiital mm. bu ngeen boolewul mënoo leen a defar transport tataay li li coow li bari dañoo am dañoo am seen seeya de am génn kuréel bu nasu tataay lu ñu sikk sikk fexe man tataay naw naa leen fexe nañ ba taxawal dara ab daayira di ko doxal mais yeneen transport yi gis naa ci eh, waa Angal Sëñ Fall di def lu am solo gis nga nit bu defee lu baax danga koy wax déglu naa leen ci rajo bi jamono yi sëriñ bi di wàccee ñu def lu am solo su mais yeneen yi yokk paas la ñuy def bu guddi taximan bu guddi jotee moom bu guddi jotee boo mënta dox bul waxaale taxi te duñ la jëlee kat dañ lay booleeg ñaar wala ñett. yow boo nekkee ca kaw ñu wiir yóbbu kee wiir yóbbu kee soog laa yóbbu te nga fay xaas bu sëñ bi leen li dañ ko xoolaat. transport nag ci taxi am na lu mu warloo bu 23h jë jotee jëm kaw ndax. client bi nga yóbbu soo ko wàccee da ngay dawal. da ngay dawal ñëw d'accord naa loolu. Hmm. xam nga yokk kenn wax ko maam yokk xaabaabal la ñuy wax. loolu moom secteur transport yi bëri na ci. man su ma gisee ku koy def ku nekk te jaar wu la war a fay. ma xam su ma ko wàccee dama yuuru ñëwaat na ma fay 1000 francs waaye danaa ko joxe 3000. jërëjëf Abdoulaye li ñu cërale woon ci waxtu daa mel ni agsi nañ fa mu jote te li duuf ci ci li xajut ci xaw ma nuñ koy waxee bokkañ ci ligne bi ñu jël ko te fa séene tàggatoo bisimilah ah, asalaamaaleykum tur beeg sant bi fooy woote waaw ah, rafetlu nañ waxtaan bi ah, waati daam leen lu ma jaaxal de am na ci façon wata yoo xam ne dañuy dagg ci ticket dañuy xumaag xumaag googa daal man gis naa ñu ci yàq mbubam kooka ba mu ne dama hee góor ma ne ko ah ma ne ma xoolal fi nga wéeru ba ma xoolee fekk naa sama mbubb yàqu dafa xumaat. tataa la tataa bari de. tataa la dafa bari de. te te koo koo koo yàqal fii li liggéey te a kenn nag loolu dina ko waral. nañ ñu jàppale ca yàlla tax. ba c'est vrai la de. rafetlu nañu waxtaan wi nag lépp rafet na naa yéen a ngi waxante dëgg jaayante wu leen. jërëjëf lu waay def boppam. lu waay def boppam lu am solo nekk fii ci rajo bi di ko ñaanal làq gu fa yàq yëgut di ko ñaanalit sama waa personnel bi ku ci mel ni président Modou Diop caat yal na koy yàlla sàmm aar ko làq ko fa yàq yëgut daf ko mag mu am sàmm rajo bi dem ba koy dégg fu gën a kawe dem ba dooni teele ci barke Seydina Mohamed di ko ñaanal directeur DG Moustapha Thiam di di ko jaalewaat bu baax rek euh, waajur woowu sama borom yokk koy leer ak ñoom fay fekk ak ñi ko fekk jaay Seydou jot ak waa personnel bi ku ci mel ni moo frère Fallou Leus ak sama technicien bu ñaawut bi may jàkkaar lool hmm, ak euh, waa personnel bi ku lim jiwum sama Ibrahima soxna Jama émission jotaayu sëfër ki leen ko doon animé seen doom seen xarit Modou Lay Papa Ablaye xam naa nga tàggatoo rek sa kàddu yu mu jiw bu ko defee ñu yëkkati jotaay ba beneen yoon incha allah di jaajëfalaat Pape Seck président di rafetlu bu baax. taxawaayam ci dëkk bi nga xam ne mu ngi jëf te boole koog coow te ku ko jàppale ko ne yaakaar naa euh, xaarul état ndax mi ngi génn ay tablam di dem ci garage di leen regroupé am na ci mag ñoo xam ne sax maîtriser wuñ code bi mu ngi leen koy jàngal ñu koy bàyyi xel ndax buñ xeeb loolu muy def ndax ki la jàngal code wala tableau bi na la boo daan jàdd ci côté bi boo ñëwee ci tableau bi da ngay taxaw wala da ngay ralenti soo ñëwee la Pape jàngaloon nga ñëw ci koñ fekk fa tableau ba da nga ko bàyyi xel na nga daan accès ca tournal ba di tourné noonu ñu fekk fa tableau ba day na ah Pape kat léegi la ma waxoon ci tableau bi nee na suma excès damay stoppé def nii signalé gauche wala ma taxaw xool sama gauche xool sama droite door a def nii kon ko fa doon ñëw war nga ko moytu bu la moytoo nga moytu ko yàlla mën naa def jàmm kon ñu ngi ko ci jaajëfal di ko ñaanal jàmm ak tawféex di rafetlu lu baax engagement di jaajëfalaat gars yi surtout jàng wees jàng du wees boobu mm-hmm. mu am na solo lool ñu ngi siyaari ñëpp di ci kàddu yi xam ni ab donga bu xeebu ci lim nekk moo doon yëkkati du daa am xam-xam wala da cee xam dara li may waxit lu ma lu sama xalaat laa jàppoon di wax rek maa ngi jéggalu ñëpp di jaar bu baax kilifa ji di du Mbàkke Jóob su ma ko waxee xam na ñu ko yàgg xamit xam nañ ko di ko ñaanal jàmm Jóobeen FM waaw Jóobeen FM Jinjër ji FM Baol Média FM loolu nag ñett yooyu dama cee gis ni daal gëm boppam gëm lim doon gëm lim bokk ndaanaan la bay ci wewu bay moom laa ko gën bay ci maam bay mhm. ci sa wee ci mut jób ci mut jób laa ko gëmee xam nga lu tax lool mhm. bi mu njëkkee fexe ba defar rajo sans fil da koo tuddee aw santam Jóobeen FM mhm. seen carte ci tudd Janeer bi FM mu tuddee ko rajo bi maa ko xam dara nga xamee ne rajo bi ëpp na nag ci njóobee nag ëpp na maanaam ay ay ay carte régional bi la boobu suñu technicien yi ay gone lañ mu ni ko Bawol FM kon ñu koy ñaanal saa borom yëkkati ko ci doole Cheikhul Khadim nit ku nit ku yàlla baaxal la Ibrahima Cheikh Madal Fadal mhm. suñ techniciens yi ñu ngi jaar ñëpp di nuyu nag sama xarit sama soppee kenn ci man di sama kilifa di sama léppi lépp muy sama waajur bu jigéen di soxna ndeyka di nuyu sama rakki boobu Cheikh Abdoul Alim di nuyu président moo Modou mbay di président comité vert blanc bu Darou Khoudoss euh, Mouhamed Dieng maa ngi koy ziar ak Masil la Modou Mbaye sama waay waaw Ibba 446 maa ngi koy ziare Bas Bada Thiam mboolem safoor yi ñaari bas yëpp mboolem safoor vert blanc rek mboolem kuy safoor permis carte grise emprunté quatre jours. logo logo yëpp ak rogo jeex maa ngi leen di siyaare di leen ñaanal jàmm di jéggoo ci kàddu yi wasalaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf Abdoulaye noonu la ñuy ñëw di nuyu suñu xarit Dame joxaane di ko rafetlu bu baax liggéeyam ku respecté li muy conduire. chauffeur bi yor balaa waaye nag du chauffeur bu ndaw daa xam li xew man ko baax te di ko jëfe ku respecté it client yi Dame Diokhané ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ñaanal jàmm ak tawfiq di ko ñaanal chauffeur si yëpp. leen ko ñaanal di ñaanalaat bu baax gaay famille sama borom sàmm leen làqale fa yàq yëgut Mor Niang célibataire bu mag bi ci banque islamique ñu ngi koy saare waat di saare soxna Bousso borom was bee kaw gu neex gi ak mbaxal mi jaa ngeen jëf ba benn àllarba incha allahu rabbi. dégg dëgg déglul la buy tànqee ci mag ñi di sotti ci xale yi ak Baol Médias FM léppam nga ne la. Baol Média 88.5 kaddu askan wi ca kaw. damay mer de. Média rajo bi ngeen doon xaar ngir matal ay waa ji. déggal ma lii rek ci Baol Média FM. waaye romb bi. 88.5 FM. ay waay. Baol Média. neex na. waaw waaw meratuma meratuma.